tàmbali ci bisimilahi rahmaani rahim ba nga àggale ci alhamdulilahi rabil alamina mbégte la am nag ndax yàkkamti woon nañ jotaay bi waaye yaakaar naa ne yéen a ñu ko gën a yàkkamti yéen ñi nga xam ne yéen ay mbokki bitim réew dëkk bi jibee léegi mu di générique bi ngeen xam ne seen émission diaspora nouvelle version mooy dellu siwaat ci télévision Futur Média mardi bu nekk 15 jours yu nekk ci mardi ci télévision Futur Média juste après le journal bi rek di ngeen mën a am désormais seen émission euh, ci kàttanu yàlla mu di diaspora diaspora ko waxee doomu bitim réew doomu Sénégal yi nekk bitim réew bëri na bu ñu koy xayma dina egg ci 4 million waaye amuñu chiffre exact bi muy wane ne nag ñoo xam ne la ñu ñu war a jox ci cër la ci mim réew ba looloo waral télévision Futur Média mi nga xam ne mooy lëkkale damay wax toujours ne émission bi moom moo di lien di link bi nga xam ne moom moo di relier ak seen dëkk bien que nag ak nu mu munti demee nouvelle technologie fi mu toll nii le monde est devenu un village planétaire ndax lu waay bëgg a jàllale jàllale ko waaye nag dafay jaadu tamit ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew seen xel di nekk fii ñu waxtaanee li nga xam ne moom moo di uh, seen ay yitte mu nekk nag loo xam ni nouvelle version la diaspora bu bees boo xamante ne dinañ fekk sénégalais bu nekk fi nga xam ne foofu nga nekk ngir nga wax ñu lan ngay dundee ak fi nga nekk lan moom moo fa xew ci biir loolu nag ci kanam tuuti ci émission bi di ngeen mën a xam kenn ku nekk fa nga ñu toogal la nga xam ne moom nga fas yéene waxtaanee waaye tey dañuy jàpp ni ginnaaw bi ñu leen baaloo àq fu waaye mën a nekk ci àdduna bi gannaaw tabaski bi ñu génn dañuy jublu ci jasporaa nouvelle version fas yéene cee ñëw nag ci sénégalais yi euh, seen façon de vivre li nga xam ne loolu la ñu nekkee ak itam li nga xam ne moom moo nekk ci dëkk bi parce que immigré bu nekk nag euh, sa dëkk dalaa ñor soxal la ki nga xamante ne mooy dugal plus de 1000 milliards ci sa réew te nag war na am loo xamante ne mooy taxawaay boo xam ne war nañ koo amal ci suñu réew ki nga xamante ne aide bi nga xam ne moom lañ leen di defal ëpp na bépp aide boo xamante ne ñi ngi koy jot ci réewu Sénégal rek immigré yi ñi ngi def lu ko raw ñu nekk ay nit ñoo xam ne ñu jàmbaare lañ ñu am jom am fulla muy taw muy naaj ak lu mën a xew rek ñi ngi jéem a fexe jëmmal li nga xam ne moom moo leen yóbbu foofu li nga xam ne nag moom la ñu wax ci émission bu bees bii muy nag jaspora nouvelle version dinañ wax nag li nga xam ne moom mooy métit yi mooy jàmbat yi waaye nag li ci gën a am solo mooy doomu Sénégal yi nga xam ne ñi ngi à l'étranger waaye nag réussir nañu bu baax ci nga xam ne fa la ñu nekk problématique bi li nga xam ne moom moo di gaal yi demoon na ba dem ba arrêté waaye gis nañ ne ñëwaat na li ko waral ndax politique bi nga xam ne teg nañ ko muy politique gu emploi ngir jeunes yi mën a toog seen dëkk tekkee fi tamit dinañ xool fan lañ ci toll ay point la yoo xam ne mardi bu jot daal di ngeen ko mën a am ci seen télévision Futurs Médias muy seetu askan bi ma ci dalal nag gan gu jara dalal koo xamante ne nii moom def na Maroc euh, plus de vingt quatre ans comme la plupart de sénégalais yu bari rek li nga xam ne moo ko yóbboon mooy ay études ba mu demee nag defi études yi dem na ba ci biir mu yàgg ci dëkk boobu la nga xam ne moom moo di Maroc euh, jóge fa nag daal di dellusiwaat ci réewam. réew mi nag bu ñu koy wax mooy intégration bi li nga xam ne moom moo di dellu siwaat ci sa dëkk amaat euh, réinsertion boo xamante ne bii bu am solo la muy liggéey di def liggéey bu am solo jiite woon li nga xamante ne moom moo di les femmes leaders de la diaspora te léegi nag euh, mu jël ko ay yitteem ak soxlaam tax na euh, ki nga xamante ne moom mooy secrétaire bi léegi mooy faatu Matar Diop muy madame Berada bu ñu koy invité dañuy am mbégte ndax digganteem ak télévision Futur Média ku ne xam na ko digganteem ak diaspora bi ku ne xam na ko mu ciy def ay jéego yu am solo ba moo waral tey ji ñu tànn ko ngir mu nekk invité wu téléspectateurs yi nga xam ne moo ñoo tànn taamu di seetaan lii di seen émission diaspora dellu si Fatou Matar maa ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm ci foo xam ne miin nga ko xam nga ko euh, téléspectateurs yaa ngi lay seetaan fépp ci àdduna bi ma bàyyi la nga nuyonte laataa ñuy soobu ci waxtaan bi ci diaspora nouvelle version Kebs maa ngi lay fay mhm. euh, di nuyu euh, seen téléspectateurs yi mhm. ci Sénégal ak bi Euh, di profité ci plateau bi pour euh, euh, baalu àq. Mhm. sénégalais yëpp baalu mhm. àq waa diaspora yëpp di leen mhm. baal àq. di ñaan yàlla jàmm ji nekk Sénégal mu sax fi. yow tam ma lay ñaanal yàlla. ci sa émission bi nga tàmbaliwaat nouvelle version. li nga ci yéene yëpp suñu borom taxaw la ci. ñu àggale ak suñu sago. voilà di nuyu euh, waa femme leader de la diaspora yi nga xam ñoom laa fi toogal. Mhm. Euh, mat leen di présidente bi. Mhm. donc moom moom ma autorisé tey ma ñëw toog sa plateau. Mhm. man comme ni nga ko waxee léegi euh, man léegi je de devenue la général générale. di nuyu sama naatango yi ma xamanteel yëpp TFM. ñi nga xam damay faral di liggéey ak ñoom. ñoom ba leen di ziar. et di di feddali sama kóllare ci ñoom. kontaan nañu ci li nga xamante ne loolu nga wax di leen wax ne nag ne émission bi tamit également am ngeen possibilité dugg ndax dañuy ubbi téléphone yi ngeen mën a dugg waxtaan nag yéen ñi nga xamante ne yéen a toog seetaan moom lañ leen jagleel bu ñu nee seetu askan bi il faut mu am pàcc boo xam ne dañu koy jox ñi nga xam ne ñoom ñooy diaspora bis bu set damay tukki lu bëri dañuy dajeeg man ne ma suñu émission bi la ñu gëj gis li nga xam ne moom lañ ñu daan defal tey ji nag delloosiwaat nañ ko ngir seen mbégte foofu laa xamee ne fi nga xam ne foofu la ñu toll télévision Futurs Médias foofu laa leen toll yéen ñi nga xam ne yéen a nekk sénégalais yi nekk bitim réew ma leen di bëggee saa su ne di leen jaajëfal ci encouragement yi ak nag li nga xam ne moom ngeen yàkkamti woon groupe Futurs defal leen ko rawatina Ndiaga Ndour ngeen fas yéene tey ji am loo xamante ne ni désormais mardi bu jot ci 15 jours euh, di ngeen mën a euh, jànkonteeg li nga xamante ne moom moo di seen émission Fatou Matar dañuy tàmbali soobu dugg ci waxtaan bi dañu ne euh, lii di diaspora nouvelle version li nga xam ne mooy ponk bi ma ciy jiital moo di statistique muy déjà mbir boo koy lëñbët li nga xam ne moom moo ciy jiitu moo di xam ñaata sénégalais ñoom ñoo nekk à l'étranger te loolu dafay faral di nekk problème mënuñu mhm. ko xayma à peu près rek la ñuy def mhm. ñaata sénégalais lañu loolu dafa nekk problème boo xamante ne problème bu am solo la mhm. te ñu fas yéene ko waxtaane te boo ci laajtee rek dañ naan la à peu près 4 millions te évolution war na cee mën a am ma bàyyi la nga wax ci loolu laataa ñu évoluer waaw keps loolu li nga wax dëgg la euh, actuellement mënuñu la ne exactement sénégalais yi nekk ci étranger ñaata la ñu toll mu mënuñu la tam ñu la wax aussi ñan lañu. Mhm. Euh, euh, déjà Sénégal ñu bari ñu ngi fiy génn. Mhm. ñu nekk actuellement au niveau de l'Afrique. Mhm. Euh, ñoom ñoo dañuy wax Europe généralement. mais actuellement ñu nekk Afrique ñoo ëpp. parce que comme ni nga ko ni nga ko ni ko waxee tout à l'heure gaal yi commencé waat nañu. gaal yi commencé waat nañu mais bu dul gaal yi aussi nit ñaa ngi jaar ci frontières yi. y a la frontière avec la Mauritanie. y a la frontière avec le Mali. y a la frontière avec la Guinée. bépp frontière boo xam ne rek am Sénégal mi ngi fay jaar nga amee sa passeport CEDEAO jeunes yi ñu ngi fay jaar di dem ci ci ci ci àll bi même léegi ñi nga xam ne ñu ngi dem ay Amérique du Sud ci frontière côté Burkina bi la ñuy jaaree wala côté Algérie wala côté Maroc bi donc ñiy jëm ci yoonu suuf bi daanaka sax moom moo ëpp ñi nga xam ñoom ñooy dem ci yoonu ndox bi ndox bi yoonu ndox bi moo nekk actualité moom la ñuy wane ci télé yi moom la wax partout mm-hmm. mais présentement ñi nga xam ne ñu ngi nekk au niveau de l'Afrique ñoom ñoo gën a bëri te keps actuellement ñu la wax ñan ñan lañu. Mhm. parce que léegi tu vois avec l'ouverture des frontières ak passeport CEDEAO bi léegi jeunes yi ñu ngi dem fu leen neex. Mhm. mun nga dugg Nigéria mun nga dugg euh, Burkina mun nga dugg euh, Maroc. Mhm. ak sa passeport sénégalais. Maroc sax avant dugg bi yomboon na. mais léegi xam nga li fi xew. actuellement y a ay ay organisations yoo xam ne ay passeurs lañu. on bi fi lay commencer par avion pour am dëkk Maroc nga jëlee fa gaal pour dem Espagne. Espagne. voilà am na tam ñuy jaaree ci yoonu Algérie bi mhm. frontière marocaine bi mhm. pour dugg Maroc bu ñu duggee Maroc aussi jël yoonu Europe bi mhm. donc mu ñu la wax exactement ñaata lañu ñi fi jóge peut-être ji jàngi yore seen diplôme jaax ci ci ci ci organisme yu mag yi jaar par les ambassades demee visa ñooñu mun lañ mun nañ la wax ñaata lañu ñi fi jógee dem di liggéey mun nañ la wax ñaata lañu ñi nga xam ne dañ fa dañ fa dem di liggéey dans les organismes internationaux mun nañ la wax ñaata lañu mais ñi nga xam ñu ngi jaar par les frontières frontières africaines yi ñu ngi jaar ci ci ci ci avion mhm. pour wàcc ay Maroc pour dem feneen mhm. ñu la wax ñaata lañ parce que seen destination finale duñ ko wax mhm. buñ jëlee seen billet démarré fii mun ñu la ne man Maroc laa jëm wala Algérie laa jëm wala Pologne laa jëm wala Amérique du Sud laa jëm te généralement bu ñu àggee ci dëkk yooyu aussi duñu bëgg ñu xam leen soit dañuy change nationalité wut beneen passeport soit dañuy nekk clandestin ci dëkk ba donc état du Sénégal consulat yi duñ leen euh, recenser. Mhm. ce qui fekk loolu ça pose problème. Mhm. parce que pour ñu dugal la ci statistique xool yow ndax sénégalais nga il faut nga dem consulat wut sa carte consulaire ñu recenser la. absolument mais buñ la recenser wul mënuñu wax ndax sénégalais nga mënuñ mënuñ la dugal ci ay ci ay statistiques. te la tam defal politique boo xam ne aussi mun na mhm. aboutir. parce que bu ñu la defaree politique aussi il faut que ñu xam ñi ñuy defal politique ñan lañu. ban la ñu jàng. bu ñu jàngulee aussi ban qualification la ñu am. ak ci lan la ñuy yëngu. donc loolu keps euh, man pour man ñu wax politique migratoire tant que réglé wuñu problème statistique bi. problème te loolu je crois que c' est en amont. Mhm. c' au niveau du Sénégal c' est au niveau des consulats aussi. Mhm. c' est un travail boo xam ne un travail de fond boo xam ne l' doit war na ci gën a def ay jéego. Mhm. pour ñu ñu ñu mun ci avancer. dëgg la Fatoumata ñu ngi nuyu monsieur Sori Kaba directeur général des Sénégalais de l' extérieur. Euh, mus nañu waxtaanee lu mel nii euh, ngir nag mooy statistique mi ngi mel ne rek boo amee projet di def étude de marché boo deful étude de marché jiitaloo ko xamuloo ñan la identifié woo la leen mm-hmm. euh, li nga xam ne moom moo di régler seen problème dafay jafe mm-hmm. wala nga mën a xam ñoom ñooy ñan loolu benn point la boo xam ne dañ ko doon waxtaanee te naa ne ni ñu ko waxee télévision Futurs Médias relais la boo xamante ne ñi seen xam-xam màcc ci wàllu politique migratoire ku mel ne Fatoumata bu ñu leen tegee fii ñu toog dañuy jàllale message yi ñi nga xam ne ñoom lañ fi teg ngir ñu mën a regle problème boobu dafay nekk lu am solo muy joog jeego bi nga xam ne jiital nañ ko mu jëm ci wàllu statistique mm-hmm. ba tey tey jii bu ñu waxee euh, ñu ngi wax àllantam l'entame bi ñuy introduire émission bi ne euh, gaal yi dañoo dellu siwaat mm-hmm. ah, de plus belle mm-hmm. ah, ñëwaat na bu baax a baax xale yaa ngi jël gaal yi am na yeneen yoon yoo xam ne am na booy xool yoon bi nga xamante ne euh, moom moo di problème yi amoon Libye ba ñu fiy wax affaire u euh, esclavage ak yu demee noonu xale yi fi ñuy jaar la bu ñu paree ñu daal di débouché bëtt fi nga xam ne euh, moom moo di il yi nekk Italie rek ah, mhm. euh, ñu mën faa jaare léegi nag beneen bi nga xam ne dañ koy waxtaanee mu di statistique yi bi mu ci jiitoo dañuy ñëw ci politique migratoire politique bi nga xam ne moom moo mën a maintenir xale yi lan moo war a tax ba tey ji en 2018 ñuy jël gaal ak risque bi ci am di continuer di dem te ku nekk xam na ne sa bakkan day nekk ci xottu gerte li nga xam ne moom mooy communication moom mooy télé yi kenn kenn ku ne am nga sa liberté mhm. mais li ñu mën a def mooy communiquer mhm. est-ce que politique bi nga xam ne moom moo di politique utal leen emploi mhm. demee na noonu ba war a tax xale yi lan moo tax xale yi question bi daal loolu la moom mooy ñëwaat Euh, Kebs loolu de je crois que du loo xam ne lu ñuy wax rek la ci tele waaw moi je crois que sa fait depuis man depuis 2009 maa ngi maa ngi participer ci forum yi. Mhm. sur les problèmes de migration. Mhm. donc lu ñu yàgg waxtaanee la. Mhm. Euh, jeunes sénégalais yi. ak le jeune français ñun ñëpp ñoo bokk. jeune boo amee yenn âge yi nga am 17 ans wala nga am 18 ans. da ngay am envie aventure. da ngay am envie génn seeti leneen. parfois c'est même pas un problème de d'emploi. mais nature nature ci nature. waaw c'est la nature humaine c'est la xëy na ñun Sénégal yar nañu jigéen yar boo xam ne. Euh, am nañu kilifa. xam nañu ab du âge bu nekk lañuy génn suñu kër. mais xale lu góor am na foo xam ne boo fa tolloo. da ngay bëgg dem wuti leneen. da ngay am envie def dund leneen. te loolu je crois que état war na ci réfléchir bu baax a baax. xool nan la ñuy waxanteeg dëkku tubaab yi dëkk yi nga xam ne fa la sénégalais yi di gën a bëri jeunes yi fa la ñu teg seen seen bët mhm. ne dañ fay dem di fa jéem a aventure mhm. il faut ñu jéem a teg ay politique yoo xam ne jeunes yi bu ñu leen formé fii ñu jéem a xool nan lañu leen di yóbboo ci dans la légalité parce que Kebs loolu moom du mën a ñàkk fii depuis la nuit des temps nit ñi dinañ voyagé mhm. dinañ voyagé dinañ dem découvrir leneen mhm. di sax bëgg a dem Mauritanie bi mhm. xam lan moo am Mauritanie boo déggee ni euh, Fatou Matar mi ngi Mauritanie am na fa boutique am weer bi dee mi ngi gagné benn cinquante mille francs benn cent mille francs yow nga xëy mënoo am mille francs boo dépensé mënoo am cent francs yoo demee benn structure pour xool ndax dañ fa benn liste pour emploi wala wala quelque chose mënoo dem xool say acquis Mhm. parce que tam Sénégal quoi quoi qu'on dise aussi euh, mobilité dafay poser problème la mobilité coûte très cher au Sénégal mhm. bu fekkee da nga dëkk yëmbal mhm. war a dem euh, place de l'indépendance wala dem chambre de commerce pour wuti ay kayit banalement journée bi di nga fay benn cinq cent francs ah. est-ce que cinq cent francs boobu aussi jeune bi dina mun a am moyen xëy di ko di ko am tu vois donc problème boobu la da ngay xëy doo am loo loo loo dundee même kaasu café bi ngay naan problème la donc li ngay xalaat mooy man damay génn réew mi wuti tekki ji mhm. or que parfois même génn réew boobu sax du du solution bi mhm. parce que ñun xam nañ ko mhm. dañuy dem Europe dem nañ États-Unis fu ne dem nañ fa ci àdduna mais xam nañ ni àdduna bi demeetul noonu fépp metti féppay metti mais tamit nit ñi dañu war a comprendre aussi que quand tu jeune da ngay am envie aventure da nga bëgg dem tukki wuti leneen même bu ñu la fi mhm. tegaloon lépp ce qu'il faut aussi mhm. parce que deux types la celui bi nga xam ne il n'a pas les moyens mhm. ak celui bi nga xam ne il a envie d'aller en aventure c'est ça jeune sénégalais ni muy réfléchir noonu la jeune français aussi di réfléchir à un moment donné ils ont envie dem dundi leneen xami ah. leneen et puis nekk nekk bañ nekk un poids dans leur famille dans leur parce que nit ki nekk këram yeewu suba teel am benn âge bi nga toll fa bëgg a faj te mënoo faj dafa compliqué moom mooy pousser jeunes yu mooy li nga wax Euh, ba noppi tamit jeune français bi nga wax ak jeune keneen kenn ku ci bëgg a tukki da ngay jóg rek dem jënd sa billet dem. dëgg la mais Afrique dañu tegal voilà ñoom nag. dafa am nag li ñu naan l'attrait de l'interdit aussi daf mhm. ci nekk ndax itam boo bëggee dem fenn mënuloo dem tant que amul yoon yoo xam ne teg nañ ko muy mbirum visa beeg loolu kon mhm. peut-être foofu la moom mooy euh, différence bi mu mel ne euh, politique gu emploi bi nga xam ne euh, ñu ngi koy wax kenn ku nekk am nga liberté tukki comme ni ñu koy waxee mhm. kenn ku nekk am nga liberté wu génn dem fu la neex waaye déjà premier facteur bi facteur bloquant bi am mooy que xale bi nga xam ne moo bëgg a génn ci réewu Afrique yi pour mu dugg réewu Europe wala mu dugg bitim réew dafa soxla visa bu jógee bëgg bëgg ñëw ci dëkk bi du soxla visa mhm. day génn rek daal di jënd dem loolu tam nekk na loo xam ne c'est un problème c'est un problème parce que dafa mel ne war nañu waxtaan ci lu mel noonu mhm. déjà affaire visa yi war nañ ci waxtaan mhm. parce que bu ñu waxee ni euh, on parle de mondialisation on parle de d'ouverture de frontières on parle de wax ji actuellement lépp ouverture la ñuy wax ouverture on parle d'universalité donc mhm. c'est c'est c'est les mots clés yi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee mhm. donc bu ñu tolloo foofu yaakaar naa ne état war nañu toog di waxtaan seen biir mhm. parce que Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne léegi dañu soxla léegi tubaab yi seen bopp ñooy ñëw léegi Afrique ñoo fii ñëw mais donc, ils viennent Afrique, quand ils Afrique aussi am na dara. ñun tamit dara boobu tamit il faut que ñoom tamit ñu Sénégalais ñu jéem a xool dara boobu nan la. ñu wuti ko waxuñu toog rek tam état ñu defal lépp. parce que man dama dama euh, dafa toll foo xam ne. ñëpp war a jël takk seen tubéy ñi takk seen sër mhm. ñu jéem a wuti ku mhm. nekk li nga xam ne yàlla wërsëgal na la ci nga xool noo koy exploité mhm. ba mun ci am dara mais problème mu jeunes yi moom franchement c'est problème Euh, l' état mi ngi teg beaucoup de jéego yu bari ñu koy teg ANPEJ am na fi. Mhm. Euh, y' a beaucoup créé nañ fa ay kiosques pour l' emploi. Mhm. mais est que tamit jeunes yi ñu ngi jot ci information bi. est ce que est ce que outil de communication yi utilisé aussi. Mhm. est ce que outil yoo xam ne approprié na pour les jeunes. est ce que information bi ngi egsi si ñoom. est que aussi ils ont les moyens de se déplacer pour aller chercher l' information. a toutes ces questions là ñu posé état mi ngi teg DER. entrepreneur rapide. est-ce que entrepreneur rapide boobu jeunes yi ex na ci ñoom. communication problème communication egg na voilà donc parce que Sénégal quoi qu'on dise ba léegi dañu am problème de mobilité. la mobilité coûte très cher au Sénégal. très très cher dañ koy banaliser. Mm-hmm. mais jóge Thiaroye ñëw biir Dakar. xaalis la yombul te ku ci ne boo xëyee bëgg ngaa ñëw xool ba xam. voilà xool parce que bu ñu ñu ngi reproché jëli naan du ñu dem jëli euh, information bi. Mm-hmm. est-ce qu'ils ont les moyens c'est ça donc je crois que état il faut tam nit ki tam boo koy defee politique il faut nga associer ko. Mm-hmm. il faut ñu changer de stratégie. jéem a xool nan la ñuy politique de la porte ouverte voilà politique de la porte ouverte et politique de proximité. Mm-hmm. et puis il faut pas aussi ñu jël euh, kii yëpp euh, tout ce qui est euh, acquis pour les jeunes ñu jéem ko politiser. il faut ñu jéem ko alléger parce que mm-hmm. jeune bi bu déggee tamit la personne bi nga xam moom la ñu jox kii bi. nu ñu koy waxatee. la politique de l'emploi par exemple quand bu fekkee dafa am casquette politique les jeunes duñu duñu seen mhm. naan mhm. waa kii waa waa APR lañ fi nekkal mhm. wala waa réew mi lañ fi nekkal donc du quoi du coup ñoom duñu sawar duñ ci sax dañ naan dañu sonal seen bopp da ngay sonal sa bopp di wuti ay kayit ñëw déposer duñ la faale or que parfois c'est même la question man man buñ ma jegee dama leen naan dem leen ngeen wuti pour yéen la seen impôt la de façon duñ leen di luñ leen di may duñ leen di lebal la lebal la te bu ñu leen ko lebalee dañ leen di fay et puis lebal bi aussi keps est-ce que buñ leen lebalee aussi est-ce que y a un suivi xam nga ça aussi c'est des c'est <laughs> yàgg nañ fi teg ay jéego pour jeunes yi. mais est-ce que le le suivi bi euh, def nañ ko. def nañ ko loolu c'est autant de question liées à li nga xam ne moom moo di diaspora nouvelle version ñu ci waxtaan ak faatu Matar Diop tey suñu invité si vous venez de nous prendre yéen ñi bu dee yéen a ngi doog a daj ci euh, télé bi ma wax leen rek seen émission diaspora nouvelle version moo dellu si euh, suñu invité nag ñu tànn ko ndax pertinance am andi ko mu fas yéene waxtaan ak yéen ñi nga xam ne yéen a taamu télévision Futur Média di seen émission diaspora leen fàttali ne. mun ngeen a woote dugg participer ndax émission bi seen émission la yéeneen ko namoon ñu delloo sil leen ko ngir nag li ngeen ko bëggee nañ leen koy defalee ba moo waral nag ah, jotaay bii bu ñu jógee ci loolu faatu ah, ñu ñëw nag ci li nga xam ne moom moo di problème mu diaspora ah, fii ñu toll nii tembe problème yi nga xam ne moom moo fa am ñoom ñooy gën a ressentir li nga xam ne moom moo di mal-être bi am mal-être bi am dëkk beeg ci fépp ça se fait ci nit ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk à l'extérieur mm-hmm. et xamuñu lu tax ci ñoom la ñuy gisee lu nekk ñoom ñooy génne li nga xam ne moom moo leen métti boo waxee day mel ni ñoom ñoo gën a am naqar sax que waa Sénégal mm-hmm. Mm-hmm. Euh, te loolu peut-être à l'entame c'était pas comme ça mm-hmm. mais jamono ji ñu toll constat bi ñu def noonu la mbir mi tëddee lan nga ci xam non keps nit ci tam dañu war a xam ni euh, boo dee sénégalais nekk àll yow Sénégal moo lay gënal loo mën ci am dëgg la te dëkk tam boo fa defee vingt quatre ans def fa il faut ñu rappeler la tout le temps na am kenn ku la rappeler fi nga jógee. doo mës a intégré. boo yoree kayitu réew ma ñu naturalisé am nationalité bi mun nga am nationalité bi. Mhm. mun nga fa juddoo. je parle de la deuxième génération. Mhm. mun nga fa juddoo mun nga fa am liggéey am fa teraanga mais. tu mun munu tu pourras jamais t'intégrer comme la ki nga xam ne ca dëkk ba la dëkk soqee koo fa juddoo fa nekk yore euh, couleur bu dëkk ba wala mhm. origine dëkk bi donc moo tax euh, ñun ñooy gën a nekk ñooy gën a frustré parce que boo nekkee étranger yow Sénégal ngay dund. Mhm. Sénégal boo boo yeewoo la première des choses Sénégal ngay ubbi xool lan moo xew Sénégal. Mhm. xool ndax jàmm nga fa. bu fa jàmm amulee nga sa téléphone woote. Mhm. soo déggee ne kii boo boo yeewoo IGFM ngay ubbi. waaw IGFM non je donne juste l'exemple en fait dama lay tooñ rek. si ci bëri nañu. <laughs> mais pour te dire que surtout Sénégal boo xëyee loolu la première des choses surtout Sénégal ngay xool. tele Sénégal ngay seetaan affaire Sénégal ngay lekk mhm. Sénégal ngay dund donc lépp lépp loo xam ne dina waa Sénégal rek ci yow lay njëkkee parce que yow Sénégal am na ñu ngeen ko dundal mhm. ñoom du am kuñ ko dundal mhm. donc sa xel du fi nekk sa xol du fi nekk donc bu doon suñu sago te da ngay bëgg tam lu baax loo gis sa sa dëkk nga koy yéene munoo tam nekk ci dëkk yi ñoom ñuy évoluer di avancer yow Sénégal ñu nekk ci ay détails robinet yi tëj naag courant amul ak nit ñi lekk ñoog gis ay loo xam ne waroon nga yaa vingt ans gisatoo ko woon. xam nga se c'est c'est révoltant te yaa ngi liggéey yaa ngi daan doole yaa ngi def nga koy gën a ressentir. te da bëgg ñibbi. Mm-hmm. loo nekk bitim réew yàgg fa yàgg fa keps benn instant da ngay bëgg ñibbi da ngay doyoo ci dëkk yooyu sëkk. Mm-hmm. di nga bëgg gis xale yeeg sañ sañ say mm-hmm. gis euh, cakkaay beeg yu baax yeeg ñoom yu sunduur rek yooyu yëpp da ngay bëgg ñëw di ko dund ak say mbokk. dëgg la tabaski yi festivité yi nekk sa nekk nekk say mbokk donc mm-hmm. yooyu yëpp da koy bëgg dund yow boo toogee tu serres la ceinture mm-hmm. loo am yaa ngi ko yónnee sa dëkk mm-hmm. ku feebar woo la ku am problème woo la yow ngay toog di régler ay problème te sax li li gën a naqadi gars yi dañ koy casse tout le temps <laughs> ci réseaux sociaux yi naan bu ñu ku bu ñu gisee 00 221 dañuy tiit surtout période tabaski bu passé parce que ñoom dañuy yaakaar ne waa waa étranger amuñu problème que soxla ñoom rek ñoo am soxla or que ñoom li ñuy dund moo ah, gën a léegi de xam nañ ko waa loolu mooy loolu mooy wax ji ah, keps ah, étranger dafa xaw a métti mhm. étranger dafa xaw a métti su boo fa nekkee mhm. yow gisoo évolution mhm. gisoo avancement sa xol day naqari même si tu gagnes beaucoup da ngay nekkee en stress permanent da ngay nekk stress permanent parce que sa xel du jóg ci Sénégal ndax ñun lépp lu ñu mun mënti am Sénégal moo ñu ko gënal lépp lu ñu mënti am Sénégal dafa bëgg mbokk bëgg bëgg bëgg euh, bëgg sociable xam teraanga bëgg di nekk ñun loolu la ñu xam loolu la ñu juddoo ba léegi moo am Sénégal boo nekkee ci dëkk yi amu fa man nee naa Sénégal damay kontaan su ma ñëwee temps nga xam ne j'étais à l'étranger la première des choses damay dem ci maire jaay maire jaaykatu gerte caaf bi mhm. waxtaan beeg laamisoo beeg gerte caaf bu tàng bi ngay jënd ak donc ça c'est des choses yoo xam ne Sénégal nga koy dund doo ko gis Europe chaleur humaine bi mhm. Euh, vie familiale bi voilà esprit esprit de partage bi. Mhm. tout saa Sénégal rek nga koy mën a dundee. l'Afrique est une terre vierge te fi mu nekk nii ñun ñoo ko dese. te dañu bëgg bi dañ ko teel a comprendre. ñëw ñëw ñu dëkk bi yaatal ñu bu ko defee ñu mën a ñibbisi ñu jël premier téléspectateur bi nekk en ligne. après ñu continuer ci lancer boobu Fatoumata Taax allo allo allo salaamaaleykum. vie dafa mel ne kooku dem na continuer leen woote ah émission bi euh, émission interactive la ngeen mën a participer wax li nga xam ne euh, moo leen soxal ci diaspora désormais euh, mardi 15 jours bu nekk ngeen mën ko am ci télévision Futur Média ñi ngi doon wax ci li nga xam ne moom moo di chaleur humaine bi nga xam ne moom ngay am fii que nit yi comprendre ko nee naa leen l'Afrique est une terre vierge li nga xam ne moom lañ fi war a mën a def bëri na te ñu bëri comprendre nañ ko ci lancé boobu nga ñëwee yow dem def 24 ans à l'étranger waaye bi dellu si jotee da ngaa ñëwaat sa réew que euh, ñëwaat pour intégrer yomb na parce que ñu bëri dañuy bëgg ñëwaat. Mm-hmm. waaye dañ koy xalaat wala di mm-hmm. ragal wala yu demee noonu mm-hmm. mais yow def nga euh, pari boobu. siwaat nga ci sa dëkk mais léegi sax dégg naa état ngay liggéeyal. <laughs> waa képp si état lay liggéeyal mais yàqu ci sama citoyenneté dara. Uh-huh. en tout cas sama engagement citoyen. citoyenneté bi voilà citoyenneté bi. ak waaw euh, vieux vieux baal ma Fatou ñu jël ki nekk en ligne allo. salaamaaleykum. waaw baal ñu nga wàññi tele bi soxna si walla ku sëñ bi da wàññi tele bi dégloo sa téléphone. waa alo allo waaleykum salaam. na ngeen ñu ngi sant bu baax sëñ bi tur bi nan la. noo tudd ak foo ñuy woowee nga wàññi télé bi. asalaamaaleykum. Ah, maaleykum salaam ku baax noo tudd. allo. waaw allo ñu ngi lay dégg noo tudd ak foo ñuy woowee. ñu ngi lay dégg bu baax. waaw xam naa euh, du ñàkk mu dellu si waat vieux ba tey rek euh, ci ligne bi euh, ñi nga xam ne ñoo ci nekk rek a ñu bàyyi leen ñu daal di jàll dafa am tuuti problème mu connexion pour ñu mën a bokk ci waxtaan bi Fatou nga àggali ci li nga xam ne moom nga def dellu si waat ci sa réew après vingt 24 longues années vieux Diouf nag yow nag dafa mel ne yaa téye ligne bi allo <laughs> allo. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ku baax noo tudd ak foo ñuy woowee. waaw man la Ibra Seck Mbuub maa ngi ootee fii itali Ibra sekk mbub ñu ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm ci émission bi nga xam ne yaa ko moom. waaw ñoo ngi bu baax ñu ngi lay déglu. waaw xam naa ne ndax yéen ngi doon wax ci mbirum euh, immigration yi affaire diaspora bi ak yooyu. Mhm. Euh, waaye nag li ma ci bëgg a wax wax dëgg yàlla mooy euh, ñun daal vraiment. nit ku ñuul moom ñuuxut ba neex. Mhm. mais soxna si sonn nan. torop. Mhm. sonn nan dëgg yàlla. Mhm. bu fekkee ne dëgg rek lañ bëgg a wax. sonn nan. ci naka lu waral nga wax loolu. ndax li tax ma wax loolu. ndax bu ñuy xool ci ci sa jamono yi maam maam yi maamaat yi. ci affaire jàpp njaay ma dañu daan jàpp di ñu yóbbu ci biti. wallaay di jaay. tey jii nag affaire jàpp njaay moom jaar ñooñu dañ ko moderniser. ñu mm-hmm. ñu dund lu métti loo xam ne dañuy obligé. Mm-hmm. maanaam jël gaal di ñëw ci bitim réew. Mm-hmm. ngir daan suñ doole. ci ci pays boo xam ne ñu ngi nekk quatorze million quinze millions d' habitants. mënuñoo am benn satisfaction. ngay gis nit ki di di dund lu métti di dundal jaar fukki nit. baa lu ko ëpp mhm. mais man may laaj loolu ñun kañ lay jeex c'est une grande question kañ lay jeex mhm. ndax loolu metti na mhm. ñun li ñuy dund kañ lay jeex ñun amul benn sénégalais bu dëkk nekk en extérieur nga fëgg ko tey bu amul lu ko gënal fanaani wax Sénégal wallaay te vraiment loolu métti na ñun suñ président yi fi jaar yëpp ñun ñun même immigré war na nañu xoolaat tamit suñu bopp. ndax ñun da ngay xool man na maa gàttal rek ba di ci Macky Sall mujjee ñëw ñun li ko nit ñu doon kaas affaire oto yi oto yi en cinq ans mu yóbbu ko huit ans defal nañu ko. affaire problème passeport yi yi mu doon jàmbat ñu ngi koy def bu lépp yi mën naa wax ne quatre-vingt-dix pour cent yëpp ñu ngi koy dox. Mm-hmm. mais ñun. ana laka la ñuy mën a wax ne nan la ñuy mën a def pour toog suñu réew jéem a liggéey xam suñu bopp ñun ñu ñooy kan mhm. loolu kañ lay doon mhm. maanaam loolu nañ ci waxtaanaat nañ ci xoolaat suñu bopp mhm. ñun au lieu luy proposé ay oto yi am huit ans wala ay yeneen yoo xam ne la ëpp solo muñ danoo war a ñu ngi koy gërëm bu baax moom mi woote euh, itali euh, yaakaar naa ne li mu wax laataa ngay ñëw ci li la delloo si waat Sénégal ba nga ñëw toog euh, di fi liggéey am na point boo xam ne soulevé na ko mm-hmm. parce que interogation la def nee na nit ku ñuul dafa yàgg souffrir te lii ba kañ mm-hmm. am na leneen pa reconnaître na également Euh, yi nga xamante ne jéego yi nguur gi def mhm. mooy ci affaire oto yeeg mhm. euh, yi nga xamante ne moom moo di passeport mhm. coono yi nga xam ne moom lañ doon am mais en général dafa wax dégg nga ko bu baax lan nga ciy sànni parce que lii un cri du cœur la def non cri du cœur la keps loolu lañ doon waxtaan nee naa la sénégalais bu nekk bitim réew ñi fi xamul ñi ñi kumpa kumpa lu sax ba egg fa bu leen ne jii bu leen leeroon ni que bu génnoon bu leen neexee dugaat Europe dañuy dugaat dañuy dañuy ñibbi siwaat dëgg la ku fa toog rek parce que da nga amul maa ngi la fépp fu Sénégal lu mu lu mu bon bon ñëpp fii moo leen gënal. Mm-hmm. man mii su ma demee Paris une semaine doyal naa sëkk. Mm-hmm. ñibbi sama kër gi moo may dàqal toog fa pour te dire et c'est valable pour tous les Sénégalais yi nga xam tàmm nañ voyager. Mm-hmm. nee naa la bis bu ñu ko bu ñu defoon ouverture de frontières. passeport yi ku mu nekk téye sa passeport keps kenn dootul des Europe. ku dem gisoo loo xam di nga dellu si waat sa réew wala nga dem bu làmbi feneen. ndax étranger neexatul. Sénégalais ñun euh, jàmm la xam. jàmm la ñu xam daan suñu doole. Mhm. toog jàpp suñu ñàmb lu ñu am ñu bokk ak suñu bokk. loolu la ñu xam loolu la ñu tàggatee. Mhm. donc ku dem tam bitim réew toog fa du sa coobare. déedéet ku fa dem di fa taxawaal naan yaa ngi fay clandestin du sa coobare. Mhm. parce que nit ñi dañuy amul pexe bu leneen bu ñu dellu see Sénégal dañ fi am dara dañuy dellu Sénégal sans problème. comme ni ma la ko waxee sànq dafa am benn jamono boo xam ne nit ki da ngay bëgg a génn da ngay bëgg a tukki découvrir leneen mais di olof naan boo demee boo demee ba xamatoo foo jëm da ngay dellu fa nga jóge suñu ko yombaloon kenn du toog étranger dëgg la parce que nit ñi doyal nañu comme tu as dit tout à l'heure l'Afrique c'est le grenier du futur tubaab bi actuellement ñëpp ñu ngi jéem a ñëw xool la ñuy def fii tam àll bi yëpp jënd nañ jaam ñuy dañuy jaayaat si si modernité ñu ñuy jaayaat ñu ñuy jaayaat par des échanges ñu ñuy jaayaat par des au développement mm. sa introduction wax nga ko mm. ñi nga xam ñu ngi dugal mille milliards loo xam ça dépasse euh, l'aide au développement donc ñooñu soxlawuñ ko leen sarax déedéet soxlawuñ koo xam dañ dañ leen dañ leen dañ leen di euh, di fowee seen seen seen migration mhm. lu ñu soxla mooy ñu tegal leen ay politique ba pare associer leen mhm. ku nekk xam fan nga war a jaar te ket loolu tant que statistique amul mënuñu ko def statistique mooy base bi statistique dogguma la xaaral nga ñëwaat léegi ci statistique Fatou taax li ngay wax am na solo moom la ñu ubbee woon allo allo salaamaaleykum soxna si nootu tudd foo ñu woowee alo allo. waaw ñu ngi lay dégg. ku baax noo tudd salaam soxna si na nga maa ngi fi tur bi nan la. maa ngi nekk Abidjan maa ngi tudd Anta Gueye. yaa ngi ñuy woowee Abidjan. waa Anta yow rek la déglu ñu ngi nuyu waa Abidjan yëpp di déglu. bu yàgg na. dëgg la ñu ngi lay fóon bu baax. maa ngi ziar Fatou Makhtar. seen ah, ci maa bi ah wuu li nga def ndeysaan dëgg la. waaw ñun ñëpp a ngi leen di nuyu tamit di leen ziar bu baax di la wax ne dama kontaan ci Fatou Makhtar. ndeysaan. lu mu la wax ak dëgg la nit ku baax la bu ah. xam ne muy wax ku mën a sonn si nit. ba mu daan dal këram. mu teral ma teral ku ma àndal nit ku baax a ngi noonu caam. wallaay xam naa ci dara bu baax lu mu la wax ci gan dëgg la. dëgg la. témoignage boobu rek laa doon dugal. dégg lii naka Abidjan nag yéen a ngi branché TFM. ñëpp a ngi ci ñëpp fa kepp. ñëpp a ngi fa. maa ngi lay bu baax mais Fat Maxtar moom lu mu la wax ci gan dëgg la. dama koy seede. wallaay xam naa ci dara moo ma wootee télé en direct dara jaralu ma ko kenn jaralu ma ko. mais Fat Maxtar moom vraiment jaralu ma lool. moo la yónnee tenu bi vraiment di ko euh, kañ pour mu yokk liggéeyam. parce la dina yegg fi mu war a yegg ci barke Seydina Mouhamed. sallallahu alayhi wa sallam. merci beaucoup Anta ñi ngi nuyu sénégalais yi nekk euh, Côte d'Ivoire nekk Abidjan ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di kontaan ci ñoom di leen wax ne euh, dugg leen yéen itam euh, daal di participer ci émission bi nga xam ne yéenay boroom ñi ngi ñëwoon ci li nga xam ne moom moo di statistique mm-hmm. waaye nag ba léegi expliquer nga ñu mm-hmm. waaye dañoo bëgg nga gën a xóotal ci yow ni nga def ba dem bitim réew def fa bi ngay dem au départ jàng moom moo la fa yóbboon te moo yóbbu ñu bari mhm. ay étudiants mais bi nga demee ba ci biir mhm. toog nga fa 24 ans waaye dellu siwaat nga ci sa dëkk mhm. mais dellu si du ku nekk moom moo koy réussir te yow macha allah yaa ngi ciy liggéey nee naa la maa ngi lay tooñ sànq sa naan la léegi état ngay liggéeyal est-ce que mën nga ñëwaat ci loolu ba pare waxaat ñu ci statistiques yi pour que ñu gën ci taxaw xam naa ne sax ñu ngi ci taxaw parce que tant que xamuloo mbir ko mën a saafara la non man moom euh, ma ko du ma ko weddi sama sama ñibbis dama ko préparé dama ko mhm. préparé un retour da koy préparé mhm. du loo xam dama xëy rek def ko mhm. comme je t'ai dit Sénégal il y a beaucoup de potentialité il y a énormément de choses à faire dans ce pays c'est vraiment euh, le un, un des greniers du futur man loolu dama ko comprendre parce que dans le cadre de mon travail dañ ma fi yebaloon ma def ay études stratégiques pour les sur les secteurs porteurs may aider ay nit pour ñu ñëw investir Sénégal donc je me suis dit quand j'ai vu que nit ñaa ngi ñëw ma ne instant boobu ma ne kon man tam sama ñibbi si jot na. Mhm. je vais essayer de tenter ma chance comme tout le monde. Mhm. ñëw créer sama structure di ñafe. Mhm. mais c'est pas facile. te ñi bëgg a ñëw aussi parce que yaa ngi wax mais orientation fan la jaar. ñun déjà FLD femmes leaders yi. ñun au départ loolu loolu loolu moo taxoon ñu créer femmes leaders. parce que ñu ci bi ñi ci nekk ñëpp ci comité exécutif bi c'est des gens yoo xam dañu ñibbi si. ñun ñëpp su su suñu biir waxtaan on se retrouvait dans les forums on s'est rendu compte que ñi ci bëgg nañu ñëw mais y a des difficultés mm-hmm. ñuy wax ci suñu ay jaar-jaar souvent on dañu doon def ay partage d'expérience di waxtaan ci suñu jaar-jaar lan la ñu def ba agsi lan la def ba ñëw investir fi lan la def ba ñëw liggéey Sénégal pour encourager yeneen émigré euh, femmes migrantes mm-hmm. ñu ñibbisi mm-hmm. donc on, on était des ci loolu euh, ñun nañu est-ce que pourquoi pas du ngeen créer benn association boo xam ne dina permettre ngeen di orienter ñi nga xam bëgg nañu ñëw ak ñi nga xam bëgguñu ñëw donc effet daanaka origine bi loolu la. Mhm. donc nous on était un point focal pour nit ñi information bu ñu soxla au niveau de Sénégal ñu jox leen. Mhm. les trucs de financement. ñu jox leen on devait être relais. Mhm. donc mu nekk interface bi entre euh, ici l'état du Sénégal. ak tout ce qui est euh, organisation internationale de la migration. ñëpp ñi nga xam dañuy régler problème migratoire. ñun on voulait être l'interface. Euh, ñu ñëwaat léegi ci interface boobu nga xam ne moom la femme leader euh, de la diaspora Fatou Matar euh, ñëw toog fi tey teewal leen fi ñu jël téléspectateur bi nekk en ligne dellu siwaat loolu ndax lu mel ne li nga xam ne moom moo di financement ak ay investissement dafa am solo torop ci nit ki bëgg a dellu siwaat ak ñi bëgg a dem mm-hmm. allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw kooku de suma jigéen la Fatou Matar. waaw si jigéen la Fatou Matar noo tudd ak foo ñu woowee. Omar oh, Cissé borom mbuur rek. borom mbuur aywa yow rek la ñuy déglu. <laughs> defoon nañ ko daaw fekkee déedéet. dañuy baaxantal <laughs> ayca. <laughs> yaa ngi fàttaliku la eh, bi nga defoon ak ceeb. Uh-huh. dëgg la woote naa la moo tax it bi yoon soxna si xaaral ma waat ko rek. Uh-huh. waaw. bon affaire immigration moom wax ji mënta jeex. Mm-hmm. dañuy wax rek ba fa. Mm-hmm. réew mi métti na booy yi xamuñu fu ñu teg seen tànk xam nga te mm-hmm. immigration c'est la solution. bu mm-hmm. duggee biir ngay xam ne xam nga lépp dëgg la. allo. Mm-hmm. allo. waaw waaw ñu ngi lay déglu. waaw ma ne affaire immigration moom wax ji moom mun mun. mun ta dañuy wax rek waaw. réew mi métti na booy yi bëgg dañoo tukki dañoo gumba tëx lu loo leen wax mënuñ koo dégg. déedéet. Europe xam nga mooy loolu. Mhm. boo ko duggee rek xam ne lépp dëgg la. Mhm. dëgg la moom. waaw moo tax nag xam nga tout le temps ñi nga xam ne yàlla may na leen chance ñuy voyager di dem di ñëw xam la ne bitim réew. il faut qu'on sensibilise autour de. Mhm. ku bëgg a dégg dégg ku bëgg a dégg nag su demee ba yegg ah man de gis naa ñoo xam ne wax dëgg yàlla biir Europe fi mu ne ku leen mayoon bii ñu ñibbisi duñ ko gën. ñu ngi fa dans des conditions misérables yoo xam ne xam nga métti na daal. Mm-hmm. aussi gouvernement bi foog ñu jërëjëf ñu ngi ko jaajëfal def leen moom woote leen dugg ñu ñëwaat mm-hmm. nag ci li nga xam ne moom lañ doon waxtaane mm-hmm, mm-hmm. moom itam am na point bu am solo boo xam ne andi na ko ba tey ci xale yi rek ndax nit ku bëgg a dem moom li ko olof di waxee rek ku bëgg tukki ak ku bëgg a tuxu ñoom ñoo yem euh, kenn mënu leen a téye te kenn ku ne da nga war am liberté te dafa mel ne nag dafa am benn déséquilibre bu am parce que bu fekkee tey jën bi nga xam ne moo nekk à l'étranger dëkk bu mu bëgg dem day jóg dem jëndi biyam dem te dëkku africain yi ku bëgg a dem ñu toog ñu tongal la ci li nga xam ne moom moo di ay visa dafay nekk loo xam ne lu compliqué la mu mel ne dirigeant africain yi war nañu mën a taxaw ci loolu pour que tam balance bi xaw a wàcc parce que euh, gisuñu lan moo war a tax différence yooyu am même bu fekkee ne on est dans des pays bu dee ne continent africain ñu ngi koy wax continent boo xamante ne pays sous-développé bari na ci waaye continent africain richesse bi mu am su Euh, ci histoire ak ci lépp lépp lu mu mun ti doon mhm. yaakaar naa ne euh, mënuñoo tubaab yi mënuñoo dem sans continent euh, africain depuis mhm. la nuit des temps ba fii ñu toll mhm. kon jot na tamit ñu jël seen ay responsabilité daal di tamit équilibre boobu ñu xaw ko dindi jéem a dugal tamit seet nu ñuy def rek pour que tamit xale yi gis ci seen bopp ñu jël beneen téléspectateur bu nekk en ligne laataa ñuy eggali waxtaan bi ci diaspora nouvelle version allo allo salaam ku baax noo foo ñuy woowee man Ali laa tudd Mbour laa leen di woowee. waaw yow rek la ñuy déglu Ali. Ah, allo. waaw ñu ngi lay déglu Ali. Ali nag bul déglu sa bopp foofu da ngay teg <laughs> da ngay déglu si téléphone bi rek waxtaan bi gën a mën a neex allo. waaw euh, ñi ngi wax rek suñu mbokk ku woote rek da ngay waxee ci téléphone bi bañ a déglu télé bi ngir waxtaan bi gën a mën a yemb Fatou Matar euh, ñu ñëwaat nag euh, ci li nga xam ne moom la ñu doon waxtaane ngi doon wax ba léegi gis nga képp ku woote li nga xam ne moom ngay expliqué parce mm-hmm. boo koy wax métti tam yaa mm-hmm. a dem mm-hmm. parce que moo di seen ay responsabilité pour que yëf bi xaw xaw a équilibré tuuti. keps na wax nga wax ji. Ah. wax ji mooy tu as parlé de liberté. Mhm. Euh, mot clé bi liberté la. universalité la mhm. mondialisation la. Mhm. donc mu ñu nekk ci àdduna bi naan mondialisation universalité. ni ñi boo war ñu ñu toll foo xam da ngay gis ay gaal. ñuy yëpp ay nit ba mu fees pour traverser dem Europe. man keps pour man loolu dafa image bu doy waar la. Ah. te kenn waratu ko nangu ci àdduna képp kuy dirigeant da waratul nangu ñuy gis. ay gaal muy fes dell ak ay jeunes ñuy atterrir ci ay îles di atterrir ci kenn xamul mhm. man je crois que l'urgence c'est ça mhm. que les états nos états prennent les responsabilités mhm. que ça soit nos états nous que les états européens muy états euh, américains yeeg ñoom ñëpp dañoo war a jël seen responsabilité migration dafa war a jeex ci àdduna bi nit ñi dañu war a voyager c'est ça ubbi frontière yi dañ ko war a ubbi passeport universel dafa war a am ku bëgg tukki tukki ku bëgg toog sa dëkk nga toog sa dëkk mënuñu ñëw jël li nekk soxla li nekk suñu réew yi ba pare te ñun mënuñu dem seen réew. jël fa liñ fa soxla fa liñ fa soxla mënatul nekk. pour man wax ji wax ci li ñuy waxtaanee nii yëpp. Mhm. ay kan la buumu njaam di dañ ak. buumu mhm. njaam bi ñun ñoo ko war a jëlal suñu bopp. Mhm. parce que foog naa jamono ji kenn jaam amatul fenn. kenn jaayatul nit. dëgg la bu ñu demee ba ay problème di am libi ñuy jàpp ay sénégalais di leen def ay jaam leen maltraité. c'est parce que état yi dañu togg di seetaan je suis désolée de le dire mais loolu moo am keps état seetaan. ñu ngi koy gis ci image yi noonu. voilà mu nekk problème boo xamante ne gis nga ñi génn bay rëcc noonu di dem loolu daal dafa dafa nekk image yoo xam ne gisoon nañ fi ay Ceuta Melula c'est ça euh, yi nga xamante ne mooy Lampedusa l'affaire Mbayang Diop jusqu'à présent en parle kenn waxatu ci et c'est sûr que a beaucoup de Mbayang Diop yoo xam ne xamuñu leen wu ko kenn médiatisé wu ko euh, Liban les femmes sénégalaises au Liban yàggul ci Facebook am na benn femme bu def alerte aussi waaw ah. ne ba léegi am na ñu ñuy jàpp leen mhm. tëj ci ay kër mhm. loolu waxuñu ci keps mhm. man pour man problématique bi comme tu as dit liberté il faut combat de liberté waxatuñu toll foo xam ne ñi dañuy tukki di am problème mhm. ay affaire passeur waratul am mhm. ay affaire voyage clandestine waratul am voyage dañ ko wax a organisé mhm. ku bëgg tukki tukki ku bëgg toog ci dëkk bi nga toog ci dëkk bi te muy dëgg li nga xam tam état mi ngi koy teg comme jéego aussi yi image yi vieux xam nga yi image dafa nekk image yoo xamante ne vingt-et-unième te tey la gën a am tey la gën a am y a des états qui sont en guerre mm. éthiopiens ñu ngi dem mm-hmm. syriens ngi dem mm. te pourtant Syriens yi kenn wane wu leen mais nit ñu ñuul rek la ñuy wane. Mm-hmm. parce que ñun la ñu dëgg la ñu la suñu ñun lañu ñu tegul fenn. Mm-hmm. doo gis euh, ay nit ñu weex ñuy def lii. te pourtant yana mm-hmm. en a. y a des pays yoo xam ne euh, actuellement au niveau de la euh, Syrie Liban Palestine. waaw ñu ñu ngi dugg ci gaal yi. di dem ay a dem fenn mais kenn waxu. xoolal gii gaal rek. voilà donc man pour man jamono ji keps kenn waratul gis lu mel nii. kenn waratul gis lu mel nii. te ñu teg ay acte poser ay yoo xamante ne nii. voilà pour moi parce que xale bi ñi ñuy toog tam nga naan leen bu leen def li ak yaa ngi risquer sa vie c'est pas normal géej amul bànqaas. dëgg la waaye ki nga xam ne moom moo jël àddunaam xëy na ci kër gi toog ay yaayam wër ko du dañuy encourager loolu mais tamit nit ki munuloo toog ne nit ki bàyyi leen li ngeen di def bu leen dugg ci gaal bu leen def li nga yeewu amuloo politique bu ñu la tegal boo xam ne dina la permettre boo xëyee nga mën a faj sa soxla comprendre nga dafay nekk loo xam ne lu jafe la et li ñu fi teg nag ñi ngi fi teg ay nit mm-hmm. teg nañ leen fi pour ñu liggéey ci loolu mm-hmm. ñi ngi ciy def ay jéego waaye xam naa ne danañ gën a dolli mm-hmm. ndax nag loolu la télévision di jëriñ il faut que nit ñi jël seen ay responsabilité pour que xale yi tamit jéem a xool naka la ñuy def ko mu neex nga am liberté dem di ñëw euh, te boo dellusee mu yem même niveau que ñëpp euh, Fatou Matar nga am boo xam ne am nga ko souvent dañuy wax ni euh, boo demee bitim réew li nga xam ne moom moo di jàng moo leen fay gën a yóbbu mhm. école la ngi waaj ubbi wala boog am na foo xam ne ubbi na fa mhm. euh, commencé na mais études yi tamit dafa nekk problème mhm. da ngay gis étudiant boo xamante ne day am bourse ñu may ko bourse kese bu demee du am foo xam ne fa lay fanaan man gis naa ko nañ jël beneen téléspectateur bi nekk en ligne laataa ñuy ñëwaat allo allo oui ah, sëñ bi noo foo ñuy woowee yow rek la ñuy déglu affaire bi soxna si wax na ko léegi ci mujjanteelu waxam. Mhm. gis nga man tukki naa dama ñëw comme moom. Mhm. bi ma ñibbisi ak léegi léegi def na quinze ans. quinze ans te ñun ñoo tax Sénégal. Mhm. ñoo taxawu suñuy doom. man d'accord ma sax ñu nekk fii ci cas naan ñu yombal leen leen visa yeeg ñu leneen leen. parce fa ñu dem soxna si nan la ñuy def fii dañuy liggéey rek. demuñu pour visiter demuñu pour yàq xaalis wala leneen. dañuy dem pour liggéey. pour liggéey. mais nañu lañ jaboot gi fii ñu mhm. liggéey. Mhm. mais gis nga ñun ni ñibbisi woon depuis quinze ans laa la wax benn dañ fii wax rek moo fi nekk. mais mhm. dara lu concret amu fi. bu fekkee dañuy wax dëgg te yàlla tax. man ba ma ñëwee sama focus sama moomaloon sama bopp fa nekk boo ñëwee ba ma wan la machine yoo xam ne maa ko àndaale woon ma nga tege fa ñu ko taaluñu ko. mais bi ñuy jël di ko jox étranger yi jam ñaaju àll lu tax ñun étranger ñun sénégalais yi bu ñu ci bëggee fu nekk ñu dugal. lu nekk ñu laaj ñi mhm. son nag dugal ci politique dugal ci lu nekk mhm. loolu mooy problème Sénégal fa ñu jëm ay état yu ñu organisé lañu taxawu seen ay doom xëy am fa dëgg la gis nga bool ya xot ya xotaat yi ñu fekk Dubaay di ko jënd di ko indi fii mhm. loolu rek la fa sénégalais yi di liggéey ak moobal yeeg pot yeeg yeneen dañu organiser suñu bopp suñu njaboot yi gis seen bopp toog gis bu ñu demee ba touriste rek yóbbu leen foofu kenn du leen tere visa déedéet waaw man pour man wax bi yépp loolu la. gis mm-hmm. nga en tant que fekk liggéey amul fii ci Sénégal taxawuñu askan bi. Mm-hmm. ñuy dem. Mm-hmm. xam nga ne xale bu gis liy xew ci géej gi jël bakkanam dagaat ko ci géej gi di dem. war nañu seetaat suñu bopp bu baax a baax a baax. problème yépp foofu la nekk. dëgg la waaw loolu la mais nag man lu ma leer laa si am. suñu as suñu état yi muy ca depuis ca Abdou Diouf Abdoulaye Wade Macky bi ñoo ci yem dañu taxawul askan bi. am xëy amu fi nit ñi ñëpp mu ñuy liggéey ci état xale yi waruñu leen xiif ak ñu nekk ay politiciens ci xale bu fi tekk parce que nanga nga loolu loolu moo baaxul jam ñaajo bañ ko daggee mënoon nañ ko dagg def façon boo xam ne sax immigré yi ñibbi lañ ko jagleel soo ñëwee duñu la ko jaay duñu la ko may duñu la ko sarax dañ lay wax soo amee loo def kaay espace ngi ni kaay mm-hmm. da fay mm-hmm. mais dara da ngay découragé mujj dem toog toog sa roq di liggéey man wallahi alazim boo ñëwoon sama place tey ma woon la machine yoo xam def na fi 15 ans dawal ma leen. a problème de espace fooy jaar ak fooy teg foo fu mm-hmm. ouvrier nekk ñu ñëw falaxe mu dem. Mm-hmm. loolu mooy problème mu dëkk bi yéen baax na nag. dëgg la am na solo li mu wax am na solo ah, am euh, na solo bu baax parce que nee na tamit d'accordul ñuy wax nañ leen yombalal visa yi parce que tamit liñ naan divergence d'idées il faut kenn ku nekk andi la nga xam ne moom nga xalaat loolu moom mooy def richesse euh, te tamit li mu wax am na solo ndax itam nee bu fekkente ne liggéey bi nga xam ne moom ngay defi bitim réew boo toogee ci sa réew fii liggéey ko waaye na fekk ñu won la yoon yi yaakaar naa ne li mu wax loolu jeunes yi orientation. Mhm. ñoom ñoo war a changer seen stratégie de communication pour mhm. xool nan la ñuy fexe ba ñi ñu cible ñu àgg vers ñoom. accessible information bi accessible ci ñoom ñu xam fu ñuy jaar. waaw ñu yombalal leen ko aussi. Mhm. parce que tam munoo tamit koo xam ni ma la ko waxee sànq amoo tu as du mal pour jënd kaasu café boo xëyee naan ñu naan la indil këyit tel. demal place indépendant demal APIX demal ministère. léegi projet bi ki lay defal projet da nga koy fay. voilà donc c'est ça koo xam ne man euh, keps li gën a dramatique dans ce pays da ngay gis ñoo xam ne egg nañ ba mu musuñoo stage man loolu man daf ma yem ci Sénégal. c'est choquant c'est dem ba master mënoo stage donc ñi nga xam ne amuñu masteur nag ils ont le minimum ñi nga xam ne yàlla baaxeewu leen ñu xaw a jàng tuuti. Mhm. loolu ñooñu ñooñu nañ lañ leen di def. doy na waar Vieux bu fekkente ne vidéo yi pare na ñu daal di euh, teg nag ay vidéo yoo xam ne. Euh, dañ leen ko defal ngir nag tey jii ñu andi assise rek ci émission bi ngir wan leen ne bu ñu waxee nouvelle version mooy que fu sénégalais nekk ci àdduna bi rek après dinañ leen jox tamit beneen numéro boo xam ne di ngeen mën a wax ñu actualité yi nekk ci gox bi nga nekk foo mën a nekk nag ci àdduna bi euh, loolu nag am na ñu ci jot a def tey nag xamante la ko woon ak assise pour ñu xam kenn ku nekk réew ma nga xam ne euh, fa nga ñuy toogal ñu daal di lay wane li nga xam ne moom nga wax muy sa nuyoo d'abord ñu dellu siwaat ci waxtaan bi ak Fatou Mata je rappelle moom mooy suñu invité tey ci nag alternance am lañ ko tànnee ci li nga xamante ne moom maîtriser na ko ndax nag itam dund na fa lu mat 24 ans fi nga xam ne moom moo di Maroc dellusiwaat ci réewum fii ci Sénégal di liggéey liggéey bu am solo nekk ci pôle développement boo xam ne réew mi yëpp kontaan nañu ci moo tax ñu indi ko tey ci télévision Futurs Médias euh, ci seen émission désormais nouvelle version diaspora Vieux Diouf ñu dem xooli quelques euh, vidéos wu nuyoo yi après ñu dellusiwaat waxtaan bi di leen wax ne mun ngeen a woote ba tey ci numéro yi allo asalaamaaleykum waa Sénégal waa diaspora man la Khalil li nekk bi ci euh, Belgique particulièrement fii ci Bruxelles la capitale européenne euh, ça fait euh, léegi plus de dix ans ci ay bés yu néew nag dañu leen won ay information yoo xamante ne dina xew fii ci Belgique un peu partout dans le diaspora képp koo xamante ne bëgg nga xam li xew ci diaspora bi na nga jàpp TFM ak Kër Sa Thiam dina leen won information yëpp yoo xamante ne bëgg ngeen xam

maa ngi fi 22 ans yor fi sama salon nga di def yu baax donc euh, seetaan leen Diaspora si télévision Fetal Media ànd ak Kebs borom Diaspora bu ko defee man dinaa leen xamal yenn actualité moo fi dox fii si New York. waay. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen wax ne déwénati mbokk Diaspora bi yëpp ak waa Sénégal di leen wax ne ñu ngi ci dëkk bi. ngi tudd fii mu ngi tudd Tarkuuña man la Famara Sow seen mbokk seen xarit ñu gën ma xam ci Sow social ñu ngi wax suñu mbokk diaspora bi yëpp déwénati di nuyu waa Sénégal di wax ne nag xam ngeen li nga xamante ne moo xew actuellement nii ci Italie muy suñu ministère de l'intérieur bi ñuy wax Salvini Salvini nag def na ay loi yoo xamante ne comme nii ñuy jaayee ci géej gi nga xamante ne Italie li ko fordé mooy l'immigration l'Italie ngi jóge ci ñi nga xamante ne mooy suñu jàmbaaru Sénégal yi nga xamante ne dañuy ñëw ci géej gi di jaay te moom def na loi boo xamante ne moom Salvini su mu fekk ci géej gi ngay jaay danañ la jàpp yow mi doon jaay ñu bindal la contravention yow mi nga xamante tamit aussi yaa doon jënd danañ la bindal contravention loolu di doy waar lu doy waar ndax gis ngeen ne ren tabaski bi li muy am am am crise nga xam te c'est un crise international Italie ñëpp xam nañ am na crise gis ngeen ñaata milliards de sénégalais yi nga xamante ne ñoo nekk fii nga xamante ne mooy Italie yóbbante ko Sénégal loolu daal mooy loo xamante ne lu fi xewoon la gis ngeen bato bi nga xamante tamit aussi moom la woon ci géej gi ñu ngi ciy remercier tamit aussi église bu Italie bi muy Chiesa bi wax dëgg yàlla tamit aussi li nga xamante ne loolu lañ ci def kon ñu ngi wax ne suñu jàmbaar yi nga xamante ne ah ñu ngi fii ci Italie te ñëpp xam nañ ne Italie li ko fondé l'immigration d'Italie fii la commencé muy ci géej gi ndaxte kat ñeent fukki at yële ci ginnaaw bépp sénégalais bi fu mës a ñëw tamit aussi fii nga xamante ne mooy géej gi fii la mbir mi commencé te gis ngeen Salvini muy ministre de l'intérieur li nga xamante ne mooy loi yu ci def kon daal ñu leen di baalu ak une fois di leen wax ne déwén ji ci tabaski nga xamante ne foofu lañ jógee ñu ngi jaajëfal nañ sénégalais yi nekk bitim réew yëpp nag rawatina ñi nga xamante ñoo nekk Italie kon daal keps loolu la ñu ne woon lool la am lu ñu lay wax fii nga xamante ne ñu ngi nekk Perpignan nekk ay quelques kilomètres de Rome ngeen jëf ñu ngi leen di wax ne nag tey mooy le 28 août nga xam te nag ci lañ doon natte koor yi ñi nga xam te ne dañuy hiver ñi ci lañ koy xamee ñi nga xamante ne tamit dañuy ñëw Sénégal ci lañ ko doon xam jërë ngeen jëf. affaire bi mooy xal. bokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare. maa ngi tudd Ababacar Ndiaye voilà euh, yu bëri la ay vidéo yu bëri am nañ Cameroun am nañu ñi nga xam ne ñoo ñu teewal euh, fii ci Allemagne am na ñu ñu teewal Espagne ñu ñu teewal fépp fu sénégalais nekk rek euh, désormais yow yaay nekk ki nga xam ne yaa ñuy wax actualité yi nekk foofu ci sa gox Famara Sow gis ngeen ko noonu muy wax ci Italie ndax ñoom fi ñu toll nii problème bi ñu am tembe moo di Salvini ministre de l'intérieur bi ñoom li nga xam ne moom moo di politique migration la ñu jël sax politiqué ko def ko seen kiiwu campagne ba moo tax nag ñu fal leen ñu gagné ñoo fa toog xam naa ne moom moom képp kuy seetaan rek di nga xam ne euh, Famara Sow moom moo ñu fa nekkal moom la doon expliquer keneen ki ngeen gis mu di Yaatu Touré moom i nekk fi nga xam ne euh, moom moo di euh, New York moom it également dina ñëw ak ñun ak itam Fatou Kiné Diouf ak ñeneen ak ñeneen deuxième partie bi Vieux Diouf dinañ yeneen yi ak ki nga xam ne moo ñu teewal foofule ca Cameroun gis nga ne ba tey rek problème bi gis nga Italie Italie bokk na ci première dëkk yi nga xam ne moom mooy dëkku migration fu Sénégalais yi bëri mhm. yàgg faa dem bañ demagul fenn mhm. wante fi mu nekk nii ñoom seeni mbir li nga xam ne moom moo di Salvini moom moo fa nekk mhm. extrême droite bi ñoom ñoo fa nekk di mhm. di jiite fi mu nekk nii mhm. euh, te ñooñu ku ne xam nañ li nga xam ne moom lañu ñu def ak euh, euh, nit ku ñuul ak mig émigré yi lu extraordinaire caps lu paradoxal parce que Italie mi migrants yi ñoo ko sanc dëkku migrant la wallaay dëkku migrant dañu demoon ñoom ñëpp émigré ji ndax ñàkk am ñëw tabaxaat seen dëkk donc ay immigré voilà ay ñoo tabax Italie comme tu as Italie à l'époque sénégalais yi fa la ñu gën a ëppee mhm. te même expertise sénégalais bi nekk Italie sax mhm. keps mënuma la wax nu ñu toll mhm. ku ci mel ni grand Alioune Guèye tey ji bu émigré yi bay jël seen ay retraite moom moo ko xeex bu ñu demee ba indi émigré yi def nekk syndicaliste moom moo ko xeex un sénégalais invité woon naa ko voilà pour te yi ñu ngi foofu di am nekk ay médecin nekk ay compétence yu dul jeex nekk ci ki politique sax nekk ci politique bi voilà donc kii am ay compétence donc mu nekk dëkk boo xam ne tey ji mu mënoon a demee neneen mais comme tu as Mm. actuellement le, le nationalisme est en train de de, de prendre ses gants partout. Ah Italie extrême droite ñoo fa gagné. Mm-hmm. tey jii en Allemagne yaa a l' extrême droite ñu ngi manifester parce que ñu ngi mm-hmm. rey benn allemand. Mm-hmm. la France l' extrême droite presque. ñoom monde bi daal dafa mel ne extrême droite yi koy dajaloo. donc moo tax immigration loolu signal bu fort la compliqué. xaw a doy waar. donc moo tax état il faut que ñu associer. émigré yi ci seen politique yi mhm. il faut que ñu indi leen ci table waxtaan ak ñoom mhm. jéem a trouver des solutions Absolument. avec ces pays d'accueil là absolument jamono foofu la toll foofu la toll euh, ñu jël beneen téléspectateur bi nekk en ligne allo allo salaamaaleykum euh, ku baax noo tudd ak foo ñuy woowee euh, Ahmed maa ngi wootee Ndande yaa ngi wootee Ndande Ndande mhm. Ndande Fall Ndande Fall waaw waaw ñu ngi lay nuyu di la yow rek la ñuy déglu Ahmed hmm, waaw non parce que mu bëggoon a participer ci émission aywa. Euh, waaw dama bëggoon wax comme jeunes yi nga xamante ne dañuy immigré dañuy def immigration clandestin bi. Mhm. c'est ci loolu kii ko quoi loolu jëru ko parce que ñoom en général soo euh, si condition yi nekk suñ demee ba yegg. Mhm. te day nekk condition yoo xamante ne dafa difficile waaw. Mhm. déjà ñoom suñ demee ba yegg document mënuñu ko am. waaw te mhm. en plus euh, soo fa demee tamit soo amul document nekkul comme Sénégal wala yeneen pays yi nga xam te ni soo amul document mën nga tijji sa atelier wala tijji sa leneen wala xool leneen looy def mhm. waaw jaay nga mën a def te jaay bi wax suñu la jàppee suñu la laaj soo ko amul mën na la see refoulé wala mën na la see yóbbu prison ñu la si ay problème bu jeex mhm. moo tax en général euh, ñuy def ay ay kii nii ay immigration clandestine yi nii suñu demee foofu asile asilo la ñuy nekk asilo ba nga gis benn néeg boo xam te ne ay quatre personnes cinq personnes mhm. ñoo fay nekk pour nga nelaw sax problème la mhm. waaw te en fii tamit euh, Sénégal euh, Sénégal seen problème mooy yow da nekk extérieur jàng yóbbu la fa nga dem jàng am say diplôme ñëw bëgg liggéey déposé mais pour euh, nga am liggéey tamit problème la quoi parce que léegi fii nekkul diplomatie moo fii moo tax nga am liggéey mm-hmm. léegi pour nga am liggéey fii nii il faut nga am connaissance nga xamante directeur bi wala ki nga xam te mooy embauche affaire yooyu noonu te da am sa da ngay compétent am say document nécessaire déposé mu mm-hmm. leer na la yow fii ñi fi nekk tamit peut-être ñoom compétent leen mais compétence bi ñuy laaj yow yaa ngi tee la jël quoi mm-hmm. parce que ñoom am nañ connaissance dañuy jël keneen koo xam ni peut amul sax document yi amul sax diplôme yi amul sax certificat yi. Mhm. loolu daal mooy problème mu Sénégal daal problème bi yow xanaa da nga demoon da nga mus a voyager. si si waaw man nekkoon. Euh, nekkoon naa Italie. Italie. Mhm. Euh, léegi da dellu si waaw dama dellu si da nga dellu si waat mais euh, ci lan ngay yëngu fi mu nekk nii. non fi nekk nii actuellement je pratiquement à la maison mm. waaw euh, instant bi cee yëngatu des fois nga nekk affaire élevage. jënd mhm. ay ginaar dugal kii nii. te da demoon pour jàngi. waaw waaw dama demoon pour jàngi waaw man dama dem jàngi naa. am nga sa diplôme am naa sama diplôme ñëw naa mais pour nga gis tamit liggéey problème la quoi parce que au niveau da ngay déposer. Mhm. waaw waaw dama demoon pour jàngi. Mhm. waaw mu mel ni euh, moom mi wootee Nandou Fall aussi mhm. mooy li ñu doon wax rek la rejoindre mhm. c'est un jeune bu demoon euh, Italie yàgg mhm. na fa jàng na ñëw na am na diplôme am peut-être mun nañu wax ne euh, ay généralité duñu généraliser parce que cas bu nekk dafa spécifique wante ba tey rek am nañu point en commun ak ñi nga xam ne jot nañu waxtaan ak ñoom laataa ñuy def émission bi am na tamit ñoo xamante ne ñi ngi ci biir kër yi ñi ngi toog di ñu seetaan parce que immigration ni ak témoignage bi mu def exemple bu patent la ci léegi mm-hmm. Fatoumata maanaam na léegi ni am na ñoo xam ne ñu ngi fi ci dëkk bi am mm-hmm. master te mënu musuñoo stage mm-hmm. donc il me rejoint am na tam compétence diaspora yoo xam dañu ñëw ak seen ay diplôme dul jeex mënuñu sax am benn liggéey bu ndaw boo xam ne mën nga ci am cent mille francs à la fin du mois et ça c'est problème comme il t'a dit même boo nekkee compétence aussi rejoindre benn structure yow nga jógee étranger dañ lay jàppee comme un étranger duñ la bëgg a intégrer parce que déjà étranger boo ñëwee da ngay ñëw beneen mentalité tam ñu stigmatiser waaw tam ñu stigmatiser la dañu da nga gëm service da nga bëgg liggéey wala nga bëgg indi innovation bëgg indi yu bees ñu ne ñu li lañu tàmm nga bëgg indi lu bees mhm. donc c'est pas très évident aussi mhm. moo tax fii pour nga ñibbisi liggéey toog il faut nga tenace euh, keps il faut mhm. avoir les nerfs très solides il faut nga patient aussi parce que yombul déjà société bi boo ñëwee toog fi deux trois mois sax dinaa la kañ ngay ñibbi pour ñoom dëkkatoo fi <laughs> étranger nga dëkk boo fi yàggee un an ñu ne eh, waaw kii moom mbaa dafa am problème est-ce que amul këyitam yàqu ñu ko est-ce que këyitam yàquwul <laughs> donc Sénégal seen bopp ñoom ñoo lay ñoo la ñoo la dul yaatal uh-huh. ñoom nga nekk émigré moo leen di arrangé moo leen gën a arrangé nga ñibbi si dëkk bi mm-hmm. ñoom seen bopp ñoo lay découragé ñoo naan la fii dafa metti fii dëkk bi neexul da yàq sa sa sa fait au moins lu mu bon bon di nga gañe dara fii nag da ngay ñëw sonn loo am da koy bokk ak nit yi nangam ak nangam mm-hmm. donc c'est pas très évident ñibbisi bi c'est pas évident il faut vraiment nga tenace mm-hmm. et nga bëgg dëkk bi nekk patriote. waaw loolu moo jiitu. loolu moo jiitu ci lépp ni ñeneen réew yi bëggee seen dëkk. Mhm. loolu moo war a nekk li nga xam ne moom mooy jiitu ci sénégalais. nga nekk patriote bëgg sa réew mu jaral la lu nekk. loolu moom mooy andi leneen li. la dëgg la defe naa moom mooy base du man mooy base du développement il faut que nga ñeme sacrifié wu pour sa dëkk il faut que nga ñeme ñëw muñ. Mhm. ñeme ñëw ni gañewu ma dara mais dinaa muñ. Mhm. jéem a xool yoon bi. dem ci yoon bi moi je crois loolu boo ko defee yàlla moo la ciy jàppale. nga ñëw ne ma dama bëgg a ñibbisi il faut ma liggéey fi il faut que ma def li am am pastef am pastef réew mi jaral la ko dëkk bi jaral la ko ñu lay ñu lay mettil ngay nangu di la bloqué ngay yéeg di la bloqué ngay yéeg ngay dem soo demee di wuti kayit ñu lay jaabanteloo naan la yéegal fee demal fële kayit bi génnagul ngay dem ak di ñëw loolu boo ko defee patience day day finir par parce que en fin de compte lu ñëpp moom kenn warul la cee mën a xatal loolu wax yëpp loolu la wax la bu ñu la dama koy waxtaanee dama ne mhm. nit ñi a xam ne politique ministre yi ñu fi teg mhm. suñu impo moo leen di fay moom ñu ñoo leen di fay mhm. suñu dawalee seen Mercedes wala ñu gaare seen 4 x mhm. ñëw seet suñu wala ñu jël seen billet d'avion ñëw seet suñu Italie wala ñu seet suñu Maroc dem hôtel 5 étoiles suñu xaalis la ñun ñoo leen di fay ñun la ñuy liggéeyal boo demee da nga boo ko soxlaa da nga ko war a gis soo ñëwee fii ba nga gis Sori Kaba boo jëlee rendez-vous da nga war a dem gis Sori Kaba parce que il est là pour les Sénégalais de l'extérieur moom lañ fi teg pour mu liggéeyal ñu donc daf ñu war a recevoir bu ñu amee ñaxtu fu ñu war a toog dégluñu te je crois que loolu lay déroulé bi mu fi nekkee ba léegi sant yàlla moom mhm. au moins émigré la woon waaw moom il est xam na li xew mhm. donc comprendre nañu donc loolu rek day defal nit nga ñëw am sa soxla am ñu ubbil la pour nga waxtaanee ko mhm. moom loolu mi ngi koy dox te xam ne yëfu ñëpp la voilà ñëpp la moom Sori Kaba waaw donc bu ah, ñëpp defoon noonu xam ne ñii dañ leen fi teg pour ñu liggéeyal ñu je crois keps bu ñu yàggee déglu affaire yëf yi changé ñu jël beneen téléspectateur ku nekk en ligne allo allo salaamaaleykum. maaleykum salaam ku baax tur bi naan laa foo ñëwoon. waaw noo tudd. ça va yéen a si jàmm man Ibrahima Cissé Géejawaay. Ibrahima Cissé. Géejawaay. Géejawaay aywa yow rek la déglu. waaw dañu bëggoon wax suñu xalaat bu gàtt ci affaire yi immigration clandestine. aywa. c'est-à-dire fi muy mooy di wax ni ñu xam ñun ñëpp ne rek immigration clandestine bi ñuy gis xam ne boo koy seetaan sa yaram day daw sax. Mhm. du dara dul échec bu cuisante man jour bi ma njëkkee gis ñuy jàppaat nit ku ñuul di jaay lii ma ba image bi boobu dama triste comme si c'était la fin du monde parce que bu ñu demee ba toll au vingt-et-unième ak nit ku ñuul fi mu jot a jaar yëpp nous avons béré comme représentant loolu nekk histoire bi ñëpp waroon ci jàng africain yëpp toog di gisaat ñu leen di jàppaat takk ay chaîne di jaay comme ku yor say xaru tabaski dama ne loolu échec bu dirigeant africain yi yéen a dégg benn sonal bi UADF wala Union africaine wala CEDEAO wala nangam sàngam wala dirigeant yi nga xam ne ñooñu lañ doon jàpp ci doomu di jaay yéen a toog waxtaan mhm. kenn dégg ko parce que seen échec la. Mhm. xam du ñu xam ne seen échec la moo tax loo dirigeant africain dañuy intérêt pour étouffer affaire boobu. Mhm. doo mës a dégg ñu toog di ci waxtaan parce que seen échec la. kenn déggu fi doomu député doomu ministre wala doomu président bu jël ay gaal doomu baadoola yi la suñu état yi organisé wu ñu taluñu sax. ils sont dans des politiques politiciennes pendant que doomu baadoole yi ñu ngi dee gis nga Méditerranée bi kenn xamul ñaata junni nit ñoo kenn mënu ko natt dafa jot nag Afrique ñu ngi naan Afrique en deux mille cinquante on sera plus de deux milliards cinq cent mhm. gis nga loolu jeunesse boobu noonu a mhm. ñu ëllëg toog gis nga dès maintenant nit ku li mu xam mooy gis bu buy daanu mu toog ba mu këlëb ci kawam ñu génne ay moor ah. mais fàggandiku balaa muy ñëw kenn dëkk ko tey ana politique d'emploi des jeunes bu crédible bu fiable bu ñu mën a taxaw joxoñ ko fii ci Sénégal kenn gisu ko fi boo fi déggee politique d'emploi des jeunes ñu ngi distribué fële xaalis ñu ngi may fële ay t ci ay kaar d'ailleurs sax bu ñu génnee ay milliards ne yeneen ci lañ koy yokk ay aaran ngay dégg tabax nañ ko fi wala ñu ne fee la ñuy def ñu ngi divertissement parce que ils veulent divertir les populations mais pas les pour le monde de il faut que ñu xam ne ñun africains yi suñu dirigeants yi ñu fal ñooñu faalewul buñ ñu respecté wul ci biti te ñaata sénégalais ministre wax falal nañ ci ministre des affaires étrangères falal ministre des des sénégalais de l'extérieur muy ñaari poste yi nga xam ne daanaka benn métier bi la benn liggéey bi la mais terewul sénégalais yi ñu ngi suivi tout ce que lu mu la ci taal bi ñu ngi koy def des choses bu vous ne pouvez même pas imaginer yéen a dégg benn benn ministre taxaw dem jël avion mu jaral ko di jënd ji Sénégalais boobu ñu rey wala ñu tëj wala ñu def naa enquête ne leen bu ko buur xam nga ko mos a dégg c'est-à-dire que léegi bëri nit ko nga xam ne nit ñi fal leen ci pare yi ak di leen jox ñuy kàttan ñu nekk ci assemblée yi dafa jox ñu liggéeyal askan bi askan bi gis ne lii dañ leen fal di leen jox suñu alal pour ñu liggéeyal ñu jërëjëf euh, moom itamit euh, participation ñu ngi leen di wax rek ne woote leen ngir mën a participer euh, ci diaspora bi nga xamante ne nouvelle version lañ ko tuddee ma ànd ak Fatou tey ji ñuy waxtaanee yoo xamante ne yu ñuy teg la ay jéego ndax nag introduction boo gis rek am na développement wala conclusion bi yaakaar naa ne ci solution yi la jëm Fatou Matar quelle solution la ñu war a mën a am bu fekkente ne sax. Euh, l'idéal moom euh, li nga xam ne moom mooy mënu mënuñu co mënuñu ko dab ba régler problème yëpp mm-hmm. mais au moins mm-hmm. ñu tendre vers li nga xam ne moom moo di ay solution ay prémices yoo xam ne dina mën a euh, dimbali doomu aadama yi ci jafe-jafe wu immigration la solution première je crois que waa ji mujj wax léegi wax na ci mm-hmm. il faut que nos états prennent la responsabilité mm. dafa image yoo xam ne keps jamono ji ñu toll nii fi Sénégal toll ak fi àdduna toll waratuñ ko gis ci télé waratuñ ko gis sax ay télé étrangère di koy wane waxatuma la ak ñun suñuy télé yi di gis ay jeunes ñu fees dell ci gaal di wàcc ay di daw pour dugg yéeg ci ay montagnes di laqatu ay policier loolu dafa ñaaw keps dafa ñaaw ci fi ñu toll nii. te mi ngi bëgg a yàgg te mi ngi bëgg yàgg te boobu ba léegi ñu ciy wax immigration clandestine immigration clandestine euh, les solutions euh, il faut que euh, état yi def des commissions mixtes avec ces pays là il faut que ñu jéem a xool. pays yi nga xam ne sénégalais yi ñoom la ñu jël mhm. ak ñoom ñoo nekk ak ñun frontière mhm. ak fi nga xam ne sénégalais yi bëri nañ fa dëkk yu mel ni Italie dëkk yu mel ni France dëkk yu mel ni États-Unis États-Unis waxuñu ci mais mhm. États-Unis actuellement li fa xew lu jéggi dayo la avec l'événement de Trump am na ñoo xam ñi ngi foon depuis vingt ans mosuñu am benn problème tey ñu xëy déporté leen dugal leen ci avion indi leen Sénégal te am na nañu toog di xaar loolu problème la Italie avec euh, l'extrême droite qui est en train de gouverner avec donc euh, il faut vous attendre aussi à ce que des Sénégalais se fassent expulser mm -hmm. et ça c'est c'est c'est c'est très bientôt mm -hmm. c'est sûr que ñu ngi toog di xaar parce que teg nañu ay politique ils ont okay. les élections parce que immigration lañ defoon thème de campagne te moo tax ñu gagné mhm. dëkk yu mel ni Allemagne actuellement aussi extrême droite ñu ngi jóg donc fépp ci àdduna bi mi ngi yëngatu Afrique y des pays yoo xam ne ils sont en guerre lu mel ni Centrafrique ba léegi c'est des pays instables mhm. ay Congo c'est des problème de Boko Haram donc même boobu ñi ñaa ngi naan am na sénégalais yi ñu jël solal leen pour ñu nekk ay bomb donc loolu lépp ñu ngi koy wax donc ce qui fait que euh, mm-hmm. keps fi ñu toll nii mm-hmm. il faut que l'état jël urgence euh, le président Macky Sall avait dit que diaspora quatorzième région mm-hmm. diaspora quatorzième région c'est bien boo lu rafet la lu neex ci xol la mais li ko jiitu mooy nañu defal statistique ñu xam ñun ñooy kan ñan ñoo ak natt ko ba xam ne ñu toll natt ko ba xam ne ñu toll ak ña fa nekk lan la ñuy def ak mooy kan ak kan mooy kan ñu jël téléspectateur bi nekk en ligne ñëwaat ci diaspora boobu 15e région wu Sénégal bi allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam ku baax tur bi naan laa ak foo ñuy woowee. Bouna Ndiaye maa ngi woote Ngaye Mexe. yaa ngi woote. Ngaye Mexe Ngaye Mexe ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Ngaye yëpp yow rek la ñuy déglu. waaw maa ngi lay nuyu di nuyu sa invité bi. Fatou waaw soo gisee mu dugg ci parce que dama seetlu Sénégal mbiru politique moo koy yàq. Mhm. politique mooy Eh, comme ça yow ki nga faral wala ku lay jàppale yow ba nga falo pour soo faloo nag moom ngay jàppale pour ma am liggéey yow ñu politiqueul déjà injustice day am foofu mhm. yow comme ni ngeen ko waxee soo nekkee magam jëm am benn âge yi wala nga jàng ba am yenn diplôme yi liggéey amoo wala nga jéem a def nga nga jéem a entreprendre comme ça créer entreprise doxam mais benn benn gis-gis rek ngeen muy tukki. Mhm. te xam nga ni ku nekk xam nga ni toog Sénégal dafa neex walla toog si nga dëkk nekk sa famille dafa neex mais suñu defee lool rek ça veut dire que dañoo sëf kon dañuy ñaan état bi jàppale jeunes comme par exemple fii nii Ngaañ. c' est def nañ fi ay démarches. Mhm. mais nañ ko continuer der baa ngi fi. Mhm. ñoo ngi defar ay dàll mais dàll lan moo koy defar ay der. man ñii di wax ak yow bind naa benn projet boo xam ne affaire u der la nu ñuy produire der yóbbu naa ko mais ba léegi kenn woowu ma kon il y a problème kon dañuy ñaan état bi jàppale ñu en plus dégg naa tamit nit ñi des fois damay dégg ñu naan ay entreprendre nañuy def entrepreneuriat mais entrepreneuriat ça demande des moyens ça demande des moyens financiers en plus il faut nga xalaat tamit tukki sa invité bi peut-être xam na ci dara tukki day tax nga am ouverture day tax nga am ouverture yow mën ngaa jëlee loo xam ne yow bitim lay indi ko fii Sénégal mais day jàppale dëkk kon daal man la may wax mooy ñu bàyyi politique yi jàppale jeunes yi soo leen bëggee jeunes yi toog nañu jàppale jeunes yi fii ñu liggéey waaw loolu daal laa amoon loo xam ne moom laa doon participer jërëjëf Euh, jërëjëf mu mel ne moom itam am na solo li mu wax ndax mhm. ngay mexe ku ko xam-xam ko ci der bi ak ni ñu mhm. koy liggéey ak mhm. daal li ñu fay defar waaye ne na am na projet mais projet bi itam du da ngay tëb rek def ko mooy li nga wax sànq rek euh, rejoindre ne ko mu mel ne wax ji rek benn la et euh, dafay am solo ñu teg politique boo xam ne dinañ won yoon nit ñi orienté leen ngir ñu gën a mën a dem ci kanam Fatoumata li mu wax nii lu am solo la donc je crois que da ma daf ma jëlee au ma rejoindre Euh, comme ni ma la ko waxee il faut que l'État prenne des solutions il faut que ñu def statistique xool ñi nekk ci euh, dëkk bitim réew ñan lañu ndax ay médecins lañu ndax ay astrologues lañu ndax ay mécaniciens lañu ndax ay menuisiers lañu ndax ay commerçants lañu ndax c'est des étudiants ndax dañuy waaj a pare jàng bu ñu paree te mun nañu ñibbi Sénégal actuellement on parle de pétrole le Sénégal dafa am pétrole est-ce que am nañ ñoo xam ne def nañ jàng nañ pétrole. Mhm. ci émigré yooyu. Mhm. wala ñu jël ay tubaab ñuy foreel wala dañu xoolal gasal suñuy. puits ñu jàng ko suñu ñu jéem a xool sénégalais yi nga xam def nañ ko am nañ ci expérience. ñu jëm leen mhm. donc man àdduna foofu la toll. foofu la toll ñi nga xam ni que qualifié wuñu il foog dëkk bu tegee politique mu xool besoin yi besoin yi nga xam ne ñu ngi ci diaspora bi ak besoin yi nga xam ñu ngi fii ci réew mi ñu jéem a xool nu ñu leen di topp. Euh, euh, linké ba ñu mun a créer benn affaire. politique yi ñu fiy teg nii comme DER par exemple moi je trouve que c'est quelque chose qui extraordinaire parce que am na fi ñoo xam taxaw nañu liggéey nañu liggéey boo xam ne lu ñuy xaar ku leen jox booster tuuti rek jox leen tuuti ñu mën a jóg ñu bañ ko politique ñu jéem a xool ñan lañu exactement les vrais acteurs ils sont qui fan la ñu nekk ak lan la ñuy def te loolu tant que defuñu statistique keps du mun a sotti du mun a sotti moo tax ñu entamé ko émission bi mm-hmm. wax statistique njëriñ bi nga xam ne am na ko moo tax ma ne ma ngi mel ne rek ngay élaborer projet tant que defuloo étude de marché pour xam lan la tenants yeeg aboutissants yi pour nga évoluer ci dafay dafay compliqué day métti euh, te nag yaakaar naa ne li nga fi wax yëpp dugg na ci nopp ñi nga xam ne ñoo ci taxawoon déjà tegoon nañ ko waaye ñu gën a améliorer rek ndax njëriñu Sénégal yëpp la ba tey Vieux Diouf ñu dem xooli rek laataa ñuy jeexal li ñu des ci émission bi nag bëriwut euh, ñu dem xooli euh, quelque vidéos yi nga xamante ne Euh, ñooñu it ñoo ñu fas yéene teewal foofu le gox boobu nga xam ne euh, fa la ñu nekk ñu fas yéene teewal groupe Futur Média saa actualité amee ci gox boobu rek ñu euh, fas yéene ñu fa teewal ñu ñëw rek daal di conclure ak Fatou Matar àggali li nga xam ne moom moo di diaspora bi Vieux Diouf ñu dem xool li des ci vidéo yi. asalaamaaleykum asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp waa Sénégal di nuy sama mbokk immigré yi. di leen nuy yéen ñëpp ci seen tour ak ci seen sant où que vous soyez di leen ziyaar euh, di leen bàllu ak ci tabaski bi ñu jóge euh, te di leen baal yéen ñëpp di ñaan yàlla ñu fekkee ko ay at yu bëri bëri dund ba di ko célébrer ak suñu mbokk yi euh, ñun ñëpp en Afrique waa tey ji nag dañ ma saisir Kebs Thiam sama xarit sama sama doomu ndey moo ma saisir d'urgence pour ma def bi vidéo et je pouvais pas le refuser et maa ngi nekkoon ci yoon nekk di voyager donc là je me suis arrêtée juste pour rekk euh, def vidéo bi et je me présente maa ngi tudd Fatou Kiné Diouf euh, je vis actuellement aux États-Unis et je suis là depuis 1998 euh, ma ñëwoon fii en tant qu'étudiante Euh, nekkoon à UT université bu nekk Knoxville c'est dans le Tennessee c'est après que euh, la que j'ai déménagé à Nashville Tennessee d'où le nom d'ailleurs de Kinney Nashville ñu bëri di ma ko oowee donc euh, je vis ici à Nashville euh, depuis 99 et après euh, ma lancé wu dans la coiffure qui qui qui est vraiment ma passion ma nekk ci depuis lors et je l'ai jamais regretté Euh, et puis euh, euh, xam naa du ñàkk amoon ngeen ay écho parce que je me rappelle il y a deux ans si ginnaaw KEPS defoon na benn émission dans QG sur les problèmes que nous rencontrons ici si affaire roulette bi licence yi ñuy laaj tout ça là et et ça persiste ñu ngi ci ba léegi d'ailleurs tout récemment rek ni dañu ñun les Africains Euh, dañu euh, porté woon plainte contre l'État de Tennessee pour que ñu éradiquer loi boobu nga xam ni moom la ñuy euh, moom la ñu établir comme qua que ne dañu war am suñu jàngi pour am suñu licence pour pouvoir faire la coiffure donc. salaamaaleykum mbokk yi maa ngi tudd Issa Sy sénégalais la maa ngi Cameroun maa ngi nuyu waa TFM maa ngi nuyu sénégalais yëpp di la diaspora. kontaan naa ci TFM bés bu nekk TFM lay seetaan. asalaamaaleykum waaye maa ngi leen di ziar bu wër a wër man la Youssoufa Ngom fils de Moussa Ngom depuis l'Australie maa ngi seetaan diaspora ak Kebs Thiam yaa ma gën a xam naka la waaye yàggatul ci lu bañ yàgg dañ leen xamal lan moo xew fii ci Australie incha allah jaajëfate jaaraama. tre tre violenze sessuali e i tre arrestati non erano waaw vie loolu rek mu mel ne image yu Famara Sow yi nga muy wane rek euh, immigré sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Italie dinañ ci ñëwaat ci beneen émission mais am na yeneen vidéo xam naa dañ koy jeexalee euh, muy xale yi nga xam ne ñoom ñoo nekk euh, Maroc ak foofu pour rek ngir mën a toogal TFM foofu la nga xam ne moom moo di ca Maroc ak foofu léegi nag Fatou Matar xam naa ne dañuy jëm ci jeexitali émission bi nga nekk koo xamante ne nii mbégte la ñuy am saa bu nekk di la dalal ndax itam da dem ci réew def euh, vingt 24 ans liggéey fa euh, jàng fa d'abord liggéey fa entreprendre fa door a si fi nga xam ne moom mooy sa réew am nga ay perspective ci li nga xam ne ci ngay yëngu ñu bàyyi rek nga daal di koy wax ci domaine bi nga nekk xam nga sànq maa ngi lay xaw a kii nag naan lan Fatou Matar est-ce que Fatou Matar ba woon la ak léegi ndax léegi état ngay liggéeyal waaw état lay liggéeyal mais xam nga engagement ci deret la nekk waaw loolu du waaw il faut que may servir askan bi dara ci moom lay liggéeyal état yàqu ci dara Euh, yàlla daf ñu sedd loo xam ne dañu nekk ay femmes engagées euh, di bëgg di liggéeyal askan bi di bëgg di liggéeyal jigéen ñi donc euh, ñu capitaliser loo xam ne lu extraordinaire la avec les femmes leaders issues de la diaspora ñu formé woon plus de huit mille cinq cent femmes à travers tout le Sénégal sur la valorisation des produits du terroir waa ji mi ngi koy wax sànq donc euh, Sénégal actuellement il y a beaucoup de choses yoo xam dañ koy jëlee à l'étranger or que mën nañ ko defee fii mhm. comme yow gënuma la ko xam da ngay tukki mhm. actuellement ethnique moo nekk à la mode partout dans le monde ñëpp ku ci nekk yaa ngi def retour aux sources ba léegi cheveux nappi sax moo xew nit ñi di sol wax di sol suñuy collier di sol suñuy dàll te artisanat di loo xam ne dafa commencé wër àdduna te Sénégal nit ñi xam xamee ñu ko mhm. léegi ñëpp même góor ñu ngi sol ay costume Sénégal donc ñun ci jote def ay formation forma ci ay femmes plus de 8500 femmes à travers tout le Sénégal mm. surtout sur la sur la produits de mango yi ni koy defaraatee def ko en jus mm. en savon en nangam donc yeneen ak yeneen quoi marmelade mooy jëmale am réew kanam voilà yére yi tissage bi tout ça yëpp mm. liggéey nañ ci mm-hmm. léegi nag dañu toll foo xam ne dañu bëgg a capitaliser mm-hmm. jéem a xool nu ñuy créer centrale d'achat mm-hmm. jéem a jigéen ñooñu nga xam dañ leen doon jàppale jéem leen accompagner pour seen produit yi nga xam defar nañ ko accompagner nañ indi ay nit à l'étranger léegi xool nu ñu koy commercialiser léegi pour ñoom ñu mun si gis seen bopp. Mhm. parce que finition problème la fii. problème la au Sénégal ci domaine yëpp donc ñun loolu liggéey nañ jot nañ ci liggéey. finition ci emballage finition sur les produits finition ci yére yi. Mhm. ci dàll yi ci saak yi. donc fi ñu toll mooy léegi xool nu ñuy jéem a capitaliser loolu yëpp xool nan lañ leen di jàppale yóbbu leen ci ay foire sur le plan international ñu mun a écouler seen ay mhm. ci en parallèle def centrale d'achat amoon signé woon nañu fi aussi euh, benn convention de partenariat avec euh, le ministère des collectivités locales avec Diouf Sarr à l'époque mm-hmm. donc doon bëgg xeex ci plan setal suñu Sénégal ci mm-hmm. propreté au Sénégal donc bi Coupe d'Afrique bi amee ba ñu gis Coupe du Monde ba ñu gis euh, supporters yi di nettoyer stade à l'étranger mm-hmm. ñu ne xaar nañ yëngalaat suñu projet boobu comme sénégalais léegi commencé nañu am sursaut patriotique mhm. xam ne dëkk bi salte na mhm. te du état moo ko mën a setal mhm. il faut que sénégalais ñun suñu bopp ñu xam li ñu bëgg jéem a xool nu ñuy setalee dëkk bi donc suñu projet boobu nañ ko yëngalaat donc am nañ benn plan d'action bu ñu teg war ko démarrer incessamment après la saison des pluies donc ci loolu daal la ñu nekk donc mhm. femme leader yëngatuwaat nañu commencé waat nañu suñu activité comme ni ma la ko waxee léegi Matane Diaw mooy présidente bi mhm. man secrétaire général la mhm. donc ñeneen ñeneen ñu ngi ci Fata Ndiaye mooy mooy euh, vice présidente bi Koumba Ali Diaw moom mooy projet yi donc ñu ngi xool nu ñuy jéem a lëkkaloog état ak projet ñu fi teg comme ay DER tout ça ñu jéem a mm-hmm. xool nan lañ ciy jàppalee suñu famille mm-hmm. ñu a lancer suñu projet boobu parce que mu nekk loo xam ne lu am solo la donc il fallait que ma wax ko waaw il fallait que ma parce que ñoom laa fi toogal donc mënu ma la dafa am solo sax parce que tamit les femmes leaders de la diaspora voilà di di di di di gis nañu sumba jun mm-hmm. gaal di fi jóge di dem ci ci ci ci ci euh, dans le cadre de l'immigration clandestine te loolu yaay laay laay laay alerté nit ki tamit boo yoree sa njaboot. Mhm. da nga war a xam li xew sa biir kër. Mhm. te lépp ñun la ñun lépp mhm. yaay la. ñu bañ a cotiser jox xale mooy cotiser jot na ñu jéem waxtaan suñu biir xool nu ñuy jàppalee suñu doom yi. xam li xew suñu biir kër yi. pour suñuy doom bu ñu naxee tukki ñu waxtaan ak ñoom teg leen si yoon. bañu ñuy tukki may tukki dañ koy jaaxale ci yoon. tukki dafa am yoon. te Sénégal quoi qu'on dise am na lu fi nekk. am na lu fi nekk nañ jéem a seet bu fekkee ne jotuñu ci ñu jéem a xool nu ñu organiser tukki bi waxtaan ci autorité yi mais nañu waxtaan ak xale yi nañu jéem a xam di xew ci kër yi parce que lépp ñun la mhm. dafa am solo foofu nga xam ne fa nga fa nga euh, daanelee rek mu di yaay yi nañu xool li xew ci kër yi léeg-léeg sax nga gis yaay joo xam ne dina dajale xaalise eh, jox ko doomam ngir mu dem ndax gis na ne ka mu dendal wala kamu mu jàkkaar lool wala benn bokkal dem na tukki ñëw ndax le paraître dans nos sociétés dafa am loo xam ne euh, daf ci am paar bu baax nit ki bu nekkee bitim réew ba bëgg a ñibbisi sax mu ngi naan bu ñëwee ay mbaay bët bu ñu may xoolee dinañ ne dellu si naa indiwu ma dara mhm. kii moo ngi dem foofu di xoolee àndaalewul mhm. dara mhm. te loolu yëpp day nekk yoo xam ne day décourager doomu aadama bi te ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal Sénégal Sénégal la uti moom toll noonu fi nga toog sa dëkk bi da nga ut des fois li ngay lijjanti du sotti euh, fii lijjanti li ngay lijjanti mu daal di sotti kon yàlla moo yor ñëpp nañu mm-hmm. dellu si waat xel yi rek mm-hmm. euh, te xam ne nag euh, Sénégal fi mu toll nii dëkk la boo xamante ne kenn du jóge fa la ñëw tabaxal ñu ko kenn du ñëw defaral ñu ko comme ni nga ko waxee Italie mm-hmm. euh, immigration moom moo ko tabax mm-hmm. Amérique itam di réew mi nga xam ne moom la ñuy wax ne mooy réew mi gën a rëy itam mm-hmm. ay nit la ñu jëlee fépp ci àdduna bi andi leen ñu ñëw tabax ko ba mu toll loo xam ne tey ji waaw fu ne dëkk yëpp loolu la demee seen immigré ñoo ko tabax seen immigré ñoo leen ko tabaxal kon immigré part bi mu am mooy day liggéey am jom am fulla ci li muy def jot na nag ñu teg ay politique yoo xamante ne teg nañ ko sax waaye ñu amélioré ko la ñuy wax. et puis ñi fi ñëw aussi indaale seen expertise nañ fexe ba accompagner leen. waaw y a eu un projet de banque de la diaspora ñoom mm. ñi mooy sénégalais diaspora yi nekk États-Unis man demoon naa mm. forum invité dem participer ci forum bi. Mm-hmm. ñooy expertise eh, waxtaanoon nañ ci waxtaan voilà mm-hmm. daje fekke woon nga ko. Mm-hmm. pour te dire donc ça ça a été un très grand projet. donc banque boobu bu ñu ko tegee état soxlaatul ñu ñu jox dara. ñun suñu boobu bu ñu cotiser ku nekk diaspora foo mënti nekk ci àdduna nga jël sa benn un franc dugal ko ci ak ni ñu toll yëpp donc soxlaatuñu état yu jàppale ñuy jaar ay DER wala di jaar ay FONSIP wala di jaar ci ay ay fu nekk donc pour man foofu lañ toll donc émigré expérience baa ngi fi expertise baa ngi fi il faut ñu jëm leen capitaliser xool ñu ñan di organiser ba lépp lu ñu am comme acquis nan lañ ko mën a joxee réew mi parce que mhm. àdduna foofu la toll doo toog rek di créer ay député fii créer ay ay fii créer ay nangam fii ok ñi nga xam ñoom ñooy ndeyu ndeyu mbedd gi associé la woon ndax fii diaspora compétence bu nekk mu ngi ci compétence boo mën a gis si àdduna mi ngi ci biir diaspora te jot na ah, nag ñu utiliser leen parce que ñoom loolu la xaar boo xoolee ku a xam xam nga fooy xew moom la ñuy njëkk a woo uh, moom xam na lépp moom ak moom am na ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci réew bi te ay sénégalais lañ te seen réew leen ñor mm-hmm, mm-hmm. mi exemple bu patanga ci vieux Diouf uh, vidéo yi nga xam moom moo des rek ñu daal di koy teg ngir yëkkati li nga xam ne moom moo di jotaay bi suñu doom yooyu xale yooyu nga xam ne ah, ñoom ñoo nekk Italie également am na vidéo yoo xam ne def nañ ko ñu teg ko rek yëkkati jotaay bi di leen wax ne désormais nii lañ leen di defal mardi 15 ah, jours bu nekk ñu defaral leen ay reportage andi leen invité ba noppi itam waxtaane li nga xam ne moom mooy sénégalais de la diaspora ñoom ñoom moom émission bi nag Euh, ba tax na nag euh, ñoom lañ ko jagleen jagleel mardi bu jot lay am ci télévision euh, Futur Média gëj guñ ma gëjoon a gis nag du woon lenn lii la woon nam <laughs> ma ne ko xoolal moom ma ngay xool <laughs> dinañ ci ñëw léegi ma ne ko gëjoon ngeen maa gis ndax nag bi ma toogee lu yàgg defuma ko ci laa xam fan laa toll ci ñoom ba tax na ndax dama doon communiquer ak ñoom ba taxoon ma créer sax page yu Facebook ngir ñoom ñi nga xam ne ñoo ma bëgg te nekk ci diaspora bi waaye nag rawatina biir Sénégal gi kon nag loolu tey jii ci jàppandalu Ndiaga yaakaar naa ni jeex na ñu ñaan ngeen ñaanal ñu rek ñu àggaleeg suñu sago defal leen liggéeyal leen ndax Sénégal moom moo ñu ñor te ci télé la ñu nekk kenn ku nekk fa nga toog rek nga sànni ñu ñaan ñu eggali leen li nga xam ne moom moo di ah, diaspora mbégte la ñu amoon nag ngir def ko Vieux Diouf nag du ma tëj te tegoo ah, sama vidéo yooyu génne ko <laughs> Fatoumata ma bàyyi la nga wax la moo ah, de la fin Euh, ci émission bi muy tàggatoo boo xamante ne du doon parce que point yi ñu war a mën a waxtaane xajul ci deux heures de temps xajul ci benn émission yow télévision Futur Média nga te da ngay nekk koo xam ne euh, consultante ngay nekk ah, euh, à chaque fois ngay ñëw ci émission bi daf ñuy soxal ndax nag mbir boo koy waxtaane da ngay dem ñëli jëli ña ko dund te xam ko nga teg leen ci plateau bi ñu waxtaane ko ma bàyyi la nga tàggatoog sénégalais yi lay seetaan un peu partout à travers Euh, xanaa di la gërëm di la sant ci mm. wóolute bi ndax euh, sa première émission maa ko defoon. dëgg la nga woowaat ma ne ma damay def euh, diaspora nouvelle version. Mm-hmm. teewul yow laa bëgg nga ñëw. Mm-hmm. gis nga sama loxo bi dama ko bandé sax <laughs> moo tax xawoon naa bañ a ñëw. mais mm-hmm. wax dëgg yàlla yow moom sama sœur nga sama lépp nga te xam naa li fi nga teg waa diaspora ak fi ñu la teg. donc di la ñaanal yàlla. émission bi lépp li nga ci yaakaar yàlla na ko suñu borom mébét. yàlla na nekk émission bi dàq ci émission yi. Euh, muy law ba waa diaspora gis seen bopp ba solution yëpp ñu trouvé ko ci ci émission bi en tout cas loolu la ñuy ñaan yàlla euh, di gërëm waa femme leader yi nga xam ñoom ñu ma wóolu aussi yebal ma ma ñëw représenté leen euh, di gërëm di di di di di gërëm waa Sénégal Adja Diop waa Adja Ombe Diko waa ci <laughs> membre fondateur la bokk c'est vrai que waa Adja ci la bokk maa ngi koy sama sama chéri boobu maa ngi koy defal un gros coucou voilà chéri Mika voilà di gërëm Anta Gueye euh, Anta maa ko ko damoo voilà sama sama doomu ndey sama lépp moom ma mhm. yónnee euh, tenue bi d'Abidjan mhm. voilà di ko di ko ñaanal yàlla waaw y aussi ma voisine madame Ndeye Fatou Sental qui a voulu m'habiller mhm. malheureusement robe bi ma joxoon dafa xat donc voilà je lui fais Madina Couture aussi je lui fais un gros voilà di gërëm waa Sénégal di leen sant voilà ci sama page Facebook aussi ñi nga xam ne réagir nañu aussi j'espère que seen question wax naa ko fi am na ku ma ne euh, la tax diaspora bokkuñu ci ci mhm. ci parrainage bi. Mhm. y avait cette question là donc dama ko fàtte ATEF moo ko posé woon. mu ne lu tax diaspora bokkuñu ci parrainage bi. kon question bi posé waat nañ ko. waa d' accord donc mi ngi noonu. yóbbante la woon yóbbante àq la yóbbante la waaw yóbbante la tontu li tax ah ci tontu. maîtriser wu ma ko non non maîtriser ma ko. <laughs> ah war nañ ci bokk nag ndax ay sénégalais wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla en tout cas Kebs maa ngi lay gërëm di la sant. <laughs> Uh-huh. voilà ci wóolu bi. voilà mm-hmm. di defal ñëpp un gros voilà ma famille. mes mes enfants Adja madame Sène sa seur la sa petite sœur la. waaw si si si bien sûr xam nga moo xam lu ne moom. dëgg la dëgg la dëgg la en tout cas je leur fais un gros coucou à ma famille euh, mes enfants voilà mes amours. xàmmee nañ seen bopp. <laughs> xàmmee nañ seen bopp ñun itam mbégte amoon ngir toog ak yéen ah maa ngi jàkkaarloo dem ba Ndaw Vieux Diouf sama bi nga xamante ne day jéem a forcé ne sama xarit la fekk maak moom du ñu ay xarit Vieux Diouf waaye nag dañuy liggéey. <laughs> Euh, donc baa ngi remercier ñëpp ñi nga xam ne jàppoon nañ ci émission bi jiital ci nag Joséphine Joséphine Buub nga xam ne ménagé wul benn effort ngir réussite émission bi ak itam euh, Njaga mi nga xam ne mooy ndeyu mbill gi di directeur wu télévision Futurs Médias ndax nag diaspora émission la bu njëkk ba tam moo ma xooloon wóolu ba dénk ko bi itam euh, moom moo ko initié waat moom Njaga yàlla jàmmam yàgg di wax nag ni Demba Ndaw tamit ak ki nga xam ne moom moo di Ibou Cissé ñoom it ñëpp dañuy jàpp ci émission bi maquillage bi ak kii di Mariam Kee ak Fifi euh, Fifi euh, ak itam <laughs> nga nekkaat Vieux Diouf képp si nen na sublime coiffure sama bàyyi caam waaw. nen na sublime euh, bi ak kii bi ah da ngeen. nen na sublime coiffure nen oh, de. waaw nen de celle qui m'a <laughs> non Apulaay moom mooy lépp Apulaay sama rakk jooju. Euh, di leen euh, dig daje nag mardi euh, dans 15 jours pour beneen émission boo xam ne nag fi mu nekk nii damay concentré wu nag bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo di immigré yi ndax xam naa fi ñu teg nag di ci nuyu sama waajoo ju nekk Atlanta mu di maam Soxna Lo waaye Vieux Diouf ba tey dajaleel vidéo yi koy teg leen wax nag ne am na yeneen émission yoo xam ne ñu ngi koy def ci télé bi bu ci mel ne fashion musique damay concentré nga xam ne moo di diaspora bi duñ ma ci gis tous les jours waaye de temps en temps dinaa ci ñëw ndax maa toogoon publicité ko ne leen samedi bu jot yëpp di ngeen ma ci gis waaye dinaa ci ñëw waaye du tous les jours léegi nag diaspora bi ci laay concentré bu baax ndax ñoo ma ñor ñoom euh, waa diaspora bi ak waa Sénégal yi nga xam ne ñoo ma bëgg te taamu ma mbégte laa amoon ngir euh, partagé ak yéen plateau bi di remercier nag sama rakk bu baax mu di Nene Diallo borom Neyman Coiffure euh, téléphone am di 77 533 14 45 pour sama rakk bopp la Adja Ombeliko également chéri Mikael moom itam ki nga xamante ne diaspora yàgg na fa lool ñëw ci dëkk bi daal di teg yëfam di liggéey am jom lool këram moom tamit ñi ngi koy nuyu bu baax di ko jaajëfal di ko wax ne émission bi euh, seen émission la Vieux Diouf nga tëjee li nga xam ne moom moo di vidéo yi rek ba à dans 15 jours incha allah pour beneen numéro wu li nga xam ne moom moo di seen émission diaspora passez une belle soirée en regardant nos programmes jërë ngeen jëf <laughs> maa ngi tudd Ababacar Ndiaye maa ngi représenté ici l'émission Diaspora sur la TFM je vis au Maroc euh, presque